tey jii nag mooy doon ñetteelu jataay yi ñu jagleel laaj ak i tontu ñu fas yéene cee dalal Serigne Cheikh Bousso moom Serigne Hassan moom du gan ci jataay bi daana teewee jataay yu laaj ak tontu di ci indi ay xam-xam yu am solo yu leer lool tey jii nag moom lañu fas yéene àndal su ko defee dañ koy bàyyi mu nuyoo su nuyoo ba noppi ñu door a jublu ci laaj yi nga xam ne ne moo fi rot kon sëriñ bi bismillah
alhamdulillahi almun'imi almannaan allati xassana bi shahri ramadan shahri alamaani walmuna walfayadaan wa ashhadu anna sayyidina muhammadan abdullahi wa rasuluhu xayru man allama ahkaama addiini wa abaan sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashaabihi ahli alhuda wal iman wa ala taabiina lahum bi imaanin wa ixsaanin maa tacaaqaba zamaan wa sallim tasliiman kasiira wa radiya allahu an qudwatina wa munqidina sheykhina ahmad alxadim allazi jaddada addiin wa azharahu ala akmali suwari wa ajmali alwaan sabbatana allahu ala ittibaaci manhajihi saalix li kulli zamaanin wa makaan amma bacdu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalib yi ginnaaw bi ñu santee suñu borom subhaanahu wa taala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam feddali suñu yebbal ak sëriñ Tuuba radiallahu taala anhu ñu ngi dellu di siyaare ñëpp di nuyu ñëpp di leen ndokkeel ni ko sëriñ Seex waxe ci weeru tedd wi ñu nekk muy shahru ramadan al muazzam di ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu nangol ñu suñuy koor te nangol ñu suñuy taxawaay am mboolem jëf bu baax biñ ci def di ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu sàmmal ñu kilifa njaboot gi di xali alxalifatul am cheikh Muhammadul Muntaqa xafisahu llahu ta'ala wa raa yal na ko yàlla sàmm te àggalal ko ay yéeneem te mu ànd ko wér te ñu ànd ko ku moom ak mboolem kilifa yi nekk ginnaawam di sant bu baax nag. daayiratu muxaddamatul xidma ci liggéey bu rëy bi nga xam ne ñu ngi koy liggéeyal sëriñ bi ci tisaare am jàngaleem ak tisaare lislaam ju sell lislaam joo xam ne mi nga jóge ci alxuraan jóge ci sunna ak ci njàngaleem sëriñ bi di ñaan suñ borom subhanahu wa taala mu saxal ñu ci jéego yooyu te sëriñ bi nangu ñu suñuy jëf jaarale suñuy nuyoog suñuy siyaare ci suñu xarit suñu sëriñ sayidi al imam sëriñ Afiya Bousso mu jot lu ñu ko mboolem kilifa yi ne ci wetam ak mboolem ñu mu seqal liggéey bi di ko di wax rek ni Serigne Cheikh waxee léegi noonu la demee jotaay bi incha allahu taala dañuy jéem a tontu lenn ci laaj yi nga xam ne mbokk yi sakku xam-xam yi gëstukat yi ñu ngi koy laaj ci seen mbir yi dina mbokki taalibe yi niñ ko daan waxee rek lépp dañ koy sukkandiku ci ëpp bokk dañ koy sukkandiku ci mbindum Serigne bi ak li nga xam ne moo nekk ci mashabul maliki yi. ñu ñu dénkoon ne nañ taxaw ak moom kon ñu ñaan suñu borom dafa ñu tawfeex di wax ne saddid lisaani nawwir janaani saffi amaani wa zid baraay bismillahi sëriñ Cheikh
jërëjëf sëriñ Cheikh Bousso ci nuyoo bu am solo bi kon dañuy njëkkee rek ci laaj bi ñuy tàmbalee ki day laaj mu ne ndax ko amee janaaba mën naa sangoo ci ndoxum géej
waaw Serigne Cheikh mën naa sangoo ci ndoxum géej ndax bokk na ci ndox yi laab ci ndoxum mutlax ci la bokk ndax ñëw na ci xadis boo xam ne Abu Hurayra radiyallahu anhu moo ko soloo mu wax ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mas nañ koo laaj ne ko ñun de dañuy nekk ci géej gi di am ndox moo xam ne du bari ndox mi ñu yóbbaale du bari ndax mën nañoo jàpp ci ndoxum géej gi ndax ndox mi yor di ko jëfandikoo moom la ñuy naan yonente bi alayhi salaatu wassalaam waxoon leen wax jum siiw jooje ne leen huwa tahuuru maa'uhu alxillu mayitatuhu géej mooy loo xam ne du jóge rek laab na ndoxam laab na la ciy dund ci biir it bu génnoon métti itam laab na muy addis bu wéré boo xam ne génne nañ ko téere yi addis yu bare bare wabillahi tawfiq
jërëjëf sëriñ bi kii moom day laaj mu ne lan mooy atteb koo xam ne da doon julli fàttee def xunut
waaw sëriñ Cheikh alxunut de mooy ñaan googu tàmbalee ci tàmbalee ci illa allahuma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nu'minu bika ba ñaan gi jeex daa bokk ci nga xam dañ koo sopp ci jullit farata bu dee jullit suba boo jullee rakkaab ñaareel bi nga jàng fatiha ak saar nga jàng ñaan googu te yàlla ko loolu bokk daa bokk ci li nga xam dañ koo sopp ci julli koo xam ne da koo fàtte dara waru ko ci ndax julli boo ci fàttee ngëneel doo ko sujjóotal sëriñ bi wax na ko jawharan nafis wax ne amma allasi fadilatan qad naqasa fala sujuda mutlaqan il qasasa il qasasa nee na koo xam ne nga fàtte ngëneel rek dañ ko wàññi kooku ab sujjóot waru ci kon sëriñ Seex xunnoot ko ko bàyyi dara du la ci war bàyyi nga lu baax nag waaye dara loolu lu ci billahi tawfiq
kii moom day laaj mu ne lan mooy àtte koo xam ne daa fas yéene takk soxna waaye bëgguta am ak moom njaboot
waaw sëriñ Seex de amul njaboot nekkul sart ci takk soxna bokkul sart yi nga xam day tax pas-pas bi du wér manis na koo def te waaye nag dafa bokk ci li nga xam ne booy takk soxna bokk na ci liñ bëri yéene waale di takk soxna ku nekk la nga war a fas sa xol mooy fas yéene loo xam ne nga mën a sàmm sa bopp ak yokk njabootu yonente bi alayhi salaatu wassalaam kon koo xam da ngay takk ndax yonente moo waxoon ne tazawwajul waluda al waluda al waduda fa inni mukaasirun bikum lu uma yawmal qiyaama na ngeen takk ay soxna yoo xam dañuy mën a am ay doom ndax bu ëllëgee bu xeet yi taxawee damay puukaréew ci seen kanam sama xeet kon kuy takk soxna ku ne war ngaa yéene waale lu yokk xeetu Seydina Muhammad waaye nag bu fekkee ba ngay takk fasoo fas yéene fas yéene wàllu ci am am doom it loolu lu tee sëy bi wér na bu fekkee soxna sam ku seqal xam na ko te ànd sa ak yow loola wér na waaye li gën nag mooy nga yéene am njaboot bu fekkee ngant waralut ngeen bañ am njaboot mel ni wéra di koo xam ne xëy na bu amee njaboot mën na caa feeñ wala xëy na yeneen ngant yoo xam daal yoon daganal na ko ko ko yore mën ngaa bañ a sabablu ak njaboot fekkee lenn ci ngànt yu amul la gën mooy buy takk soxna mu fasaale ca amul njaboot ndax loolu la ñu yente bi alayhi salaatu wasalaam sant wallahu almuwaffiq lissawaab
kii moom dafa bëgg ñu firil ko laaya ji suñu boroom wax ne falaa uqsimu bi mawaaqi'i nujum wa innahu la qasamun law taalamuuna azim mu ne laaya ji la bëgg ñu leeral ko ko
sëriñ seex la laaya boobu mooy laaya juróom ñaar fukkeel ak juróom ak juróom ñaar fukkeel ak juróom benn ci suratul waaqi'a suñ boroom subhanahu wa ta'ala day giñ foofu ci fi biddiw fi biddiw yi jaar xëy na kii laaj jëmbul laaj gi mu gis ci ngiñ li moo tax mu jàpp ne laaj yu jëf la waaye laaj yu dafay dollu ko rek arab dañuy fasal faral dollu léeg-léeg laa te duñ ci jublu feddali seen wax rek am na baytu siyaara buñ ci indi sax ka waxoon ne tazakkartu layla fa fantarat ni sababatun wa kaada niyaatul xalbi laa yataqatta'u nga xam ne laa jooju mu jëfandikoo foofu daa bëgg a fedd la ay waxam rek waaye jubluwu ci dàq kon fala aqsimu boo koy firi ci wolof mooy danaa danaa danaa giñ laa gi daa dolli ko ci wax ji rek li tax suñ borom di giñ nag mooy la ca kanam mooy innahu la qur'anun karimun alxuraan ji lay giñ ne téere bu tedd la bu màgg boo xam ne nii lenn ci ay caaxaan nekku ci lenn ci ak njabar néew ci mu nekk téere boo xam ne ba am njariñ la kon sëriñ Seex laa bi nekk ci fala uqsimu ji laa bi ci dolliku la waaye nekk duy dàq wallaahu al-muwaffiq lis-sawaab
kii moom day laaj mu ne koo xam ne day sangu sangaayul farata fàttee raxas ab cër wala mu fàttee raxas ab dig ab dig digal mu ne kon su boobaa nu muy def
waaw kooku di sëriñ bi ab la muy def mooy gaaw daal di raxas cër boobe saa yu ko fàttalikoo rek mu daal di koy raxas bu fekkee da ko fàttaliku toog ab diir door koo raxas kon jàpp ma day daal di yàqu ni ki noonu tam cangaay day daal di yàqu kon saa yu ko fàttalikoo rek doonte lu mu yàgg-yàgg nag su ko fàttalikoo rek ca saasa bu jógee raxas ko kon jàpp ma daal nay baax xanaa la cay juddóore ci atte mooy bu fekkee yàlla daa dogal mu julli woon ci njàpp loolee wala mu sangu mu tàngaay loole mu julli woon ca lu jiitu muy yëg ne am na diggante bu mu jëlee ci yaramam am ab lu ma am déneer bu mu jëlee ci yaramam kon mboolem julli gu mu julli woon moo xam néew na moo xam bari na bu dee jullik farata faaw da koy baamuwaat loolu kon mu bàyyi ko xel ne fekkee julli woon na ci njàpp moom ndax njàpp mu manqué la kon faaw da koy baamuwaat ndare boog cër boobee mu jël daa doon cër boo xam ne ba muy jàppaat ginnaaw ba raxasaale na ko kon raxas gi mu ko raxas ci njàppum ñaareel ma mën naa yóbbaale raxas gam ko fàtte gam ko fàtte woon ci raxas bu njëkk ba sëriñ bi wax na ko jawarum na fii soo xam ne kullu man lumatan aw doon nasi fal yakulul xusli mubaadiran qisi lakinnama tujziuhu musaadafa xas li wuduihi bila muxaalafa képp koo xam ne fàtte na ab dëneer wala cër ci saw yaram na nga gaaw raxas ko ba ko fàttali ko waaye nag fekkee cër ba ngi jël daa bokk cër yi nga xam ne booy jàpp da nga koy raxasaale te ginnaaw bi jàppoon nga fa kon jàpp mu nga jàpp ci ginnaaw càngaay loole wala jàpp mu nga jàppoon te manqué woon jàppum ñaareel mi mën naa mottali jàpp mu njëkk ma wa billahi tawfiq
jërëjëf sëriñ bi kii day laaj mu ne lan mooy atteb lu ñuy tuddee mudaaraba ci lislaam ak ndax ci koy def mën nañ koy fay ci alal jooju bu liggéeyee weer ba weer bi dee mën nañ koo fayee ci alal jooju
waa sëriñ sax de mudaaraba ci jëflante xeeti jëflante ci wàllu alal la bokk muamalat maliye li bokk yi nga xam ne l'islam daf koo daganal muy nekk ab contrat boo xam ne ñaara koy seq kenn ki mooy joxe alal ji kenn ki féetewoo liggéey bi ci sartu bu ñu demee ba am bénéfice borom alal jël capitalam lañ am ci bénéfice lañu ñu seet nañ koy séddoo nañ déggoo na lañ koy séddoo rek noonu la ñuy wéyal fekk ko dañoo da déggoo woon ci ne bu ñu amee bénéfice dañ koy xaaj ñetti xaaj borom alal jël ñaar kii liggéey jël benn loolu baax na buñ ci buñ ko nangoo baax na moo xam daal nuñ mën a xaajee bénéfice ba nuñ koy séddoo rek buñ ci déggoo loola mooy doon payu ki nga xam ne mooy def mu daarib bi mu daarib bi mooy ki jël alal ji di ci liggéey kak ko jox nag moom mooy borom alal ji mooy saaxibul maal ba loolu mooy mu daara ba nii mu laaje nag mel ne kii def mu daarib muy kiñ jox alal ji mu war cee liggéey dañ ko wutal ab salaire boo xam dañ koy fay par weer kon doot dugg doon doot doon bokk doot bokk ci pas pas pasu mu daara doot bokk ci contrat mu daara ba waaye beneen contrat lay nekk muy bu ñuy wax ijaar maanaam ijaara lay daal dugg day mel ne kon moom dañ ko dañ ko jël rek employé di ko fay weer boobaa da yeneen atte ci at yoo xam ne du bokk ak atte yi aju ci mu daara ba ndax mu daara bi fa mu atte boppam yoo xam ne nii wóote naag atte yi aju ci ijaara kon daa mel ne daa bëgg jaawal li ijaara ak ak mudaaraba te bokkuñu ay àtte mudaaraba moom bari na ay ay jàppandal yu ñu ci def yoo xam ne defuñu ko ci ijaara wallaahu al-muwaffiq lis-sawaab
jërëjëf sëriñ bi kii day laaj mu ne lan mooy àtte giñ ci lislaam ak ndax dagan na ñuy giñ ci kudul yàlla
waaw sëriñ saab laaj boobu daa mel ne day ñaari xaaj xaaj bu njëkk bi la koy tontu mooy giñ dagan na ci lislaam ndax suñu boroom wax ci alxuraan ne wala tanqudul aymaana ba'da tawkiidiha bu ngeen xasee ba giñ ba dogu ci ne da ngeen def dara bu leen bàyyi loolee bu leen ko firi yonente bi alayhi salaatu wassalaam daana ko jëfandikoo ci waxam ci hadiis yi baree bare fu bare dañ gis maan fa wallasi nafsi bi yadihi am na fu muy waxe ne fa wallasi nafsu muhammadin bi yadihi inni la arju an takunu nisfa as nisfa ahlil janna di giñ foofu ci yàlla mi nga xam ne moo yor bakkanam naan maa ngi giñ ne maa ngi yaakaar suñ borom def xeetam yi muy xeetu jullit yi ñuy nekk genn wàll yi ñuy njëkk àjjana ñu mën caa xame ne kon giñ dagan la yoon daganal na ko léeg-léeg sax day dekk lu war daa am na xeetu ngiñ loo xam day war mooy li ñuy wax alxasaamatu bu fekkee maanaam nit dañ ko dañoo war a gën ci li ñuy wax alxasaamatu ci wàllu fayoonte lañ koy def boobaa moom ka ca bokk ci ñu war a giñ faaw dañuy giñ dañ giñ dañu am bàkkaar day nekk lu war ci ñoom léeg-léeg tam mu nekk luñ sopp lu mel ne giñ ngir defar diggante ñaar ñaar diggante bu yàqu nga giñ ci yàlla bëgg naa defar si defar seen diggante loolu dañ ko sopp rek léeg-léeg tam moo xam ne mu nekk loo xam ne day dagan rek lu neexee def lu neexee bàyyi waaye mën naa dem sax ba araam nag fa muy araame nag mooy koo xam daa giñ ci mbir te mu wóor ko ne li muy giñ du dëgg wala muy giñ ci dara loo xam ne da cee amee alali jàmbur ci ngiñ loolee mën na caa jaar bañ jox ko alali jàmbur joo xam ne léwu ko kon loolu ngiñ moom daa araam kon daal daa mel ne al ahkaamul xamsa yi muy juróomi atte yépp day dal ci kaw ngiñ léeg-léeg mu nekk lu war léeg-léeg mu nekk lu dagan léeg-léeg ñu sib ko léeg-léeg ñu sopp ko léeg sax mu dem ba araam ñaareel li li li nga xam ne mooy tombum ñaareel bi ci laaj bi muy giñ ci ku dul yàlla loolu moom dañ koo tere dañ koo tere ci addis yu wéri wéri yoo xam ne nii yu bare bare yoo xam dañ ciy tere kuy giñ ci lu dul yàlla booy giñ da ngay giñ ci turu yàlla wala leen ci meloom yi ndax day loo xam ne màggal màggal gu réeréer ci nekk koo xam ne suñu borom yeeg moo ko yayoo bay am na ci addis boo xam ne sax Abdullah ibn Umar moo ko soloo boo xam ne mas naa gis dégg benn waaye di giñ di giñee kaaba gi naan wal kaaba gi di giñ ci kaaba gi Seydina Abdullah ibn Xattaab ne ko di déggoon naa yonent bi saa sam di wax ne kuy giñ nag giñ ci yàlla koo xam ne giñ nga ci loolu yàlla man xalafa bi ghayrillahi faqad ashraka koo xam ne giñe nga loolu yàlla daf nga bokkaale te bokkaale nag bakkaar yu mag yi la bokk yoo xam ne mën naa dem ba génn nit ki ci biir diine yi sax kon daal lu mat di moytu la boo bëggee feddle say wax daal na nga ko feddle ci giñ ci suuf suñ borom subhanahu wa ta'ala te moytu lu ñuy wax al yaminul xamuus ngiñ loo xam ne mën naa nuur nuural borom sawara mooy di giñ loo xam ne dara wóor na dara amul ci nga xam ne bi ngay giñ wóor na li ngay giñ amut waaye nga bëgg nit ñi gëm la rek tax nga giñ ko ci turu yàlla wala ci lenn ci meloom yi loola boo ko tu ku ko def te tuubu ko mën na ko yóbbu sawar wala nga yaasu billah kon sëriñ Cheikh loolu moom mooy lenn ci attay ngiñ wallahu muwaffiq lis sawab
kii moom day laaj mu ne jigéen bu fekkee dafa toll ab diggante ba tax mu dog ci weeru koor wala muy nàmpal ba tax mu dog lan moo koy war
waaw sëriñ Cheikh de ki nga xam ne daa tollu diggante moom ba dog nga xam ne mënu koo boole koor ga benn docteur yeeg ko wax wala yëg na ci yaramam ne bu wooree daal mën na ko indil coono bu rëy rëy kooku moom fay rek moo koy war bu dogee ba koor ga jàll ba ngantam loolee ko taxoon dog jeex kon day fay bis yooyee mu dogoon ki nga xam day nàmpal nag moom moom fekkee ragal na ne doomam ji bu ko bu boole bu dee woor di ko nàmpal dootu am soow mu ko nàmpale te amul kenn ku ko mën a nàmpalal sariya may na ko mu dog waaye nag moom bu dogee day fay te da koy booleeg joxe li ñuy wax fidiya mooy lu tolloog mudd moo xam ne da koy jox miskin bu nekk ci bis bu mu dog bis bu mu dog day am lu mu génn loo xam ne nii da koy jox miskin boole ko fay bis boobee mu dog nag wallahu muwaffiq lis sawab
mbokk mi moom day laaj mu ne lan mooy atteb koo xam ne bu dee julli julli naafila rukoo yi ak sujjóot yi du ko matal dafa mel day seetlu ne nit ñi buñ dee naafila dañ koy xaw a gaawal ruko yi ak sujjóot yi muy laaj ba xam ne atteb lislaam ci loolu
waaw seen seex de naafila yi moom jullit coobarewu la waaye day mbir loo xam ne boo ci xasee dugg doo toog suñu dagg naafila fekk tàmbalee goo ko moom waragu la waaye boo ko xasee tàmbali nag ba ne allahu akbar faaw da nga koy àggale kon nag boo tàmbalee naafila gi te defe ko nii mu wax day mel ne àggale woo ko ndax julli daa bokk ci ay ponkam ak tumaaniinatu mooy dal boo rukkooyee nga dal ba say cër dal nga door a siggi boo sujjóotee nga nit bay sër ci dal say cër dal nga door a toog toogaay boobu door a sujjóotaat loolu daa bokk ci julli gi bu ci manqué bàyyi nga farata nga farata ku bàyyi julli te tay ko julli gi da yàqu sëriñ bi wax na ko jawhar wax ne wa udda minha al i'tidaaru wa kasa addu tumaaniinati yanhumu uxisa bokk na ci ñaar yi nga xam daal nit ñi duñ ko bàyyi xel lool te bokk ci faratee julli moo li ñuy wax al i'tidaalu mooy yamoo mooy boo jógee ci ponk bala ngaa dem ci beneen ponk nga bàyyi ba say cër dal nga dal ci ponk sës tumaaniin nag ci biir ponk bi lay nekk mooy boo rukkooyee da ngay bàyyi ba jàpp say wóom ba mu wóor ne rukkoo nga ba sa sëg sëg gu wóor nga door a siggi boo sujjóotee dem nga teg sa jë ci suuf ak sa bakkan ba mu dëgër keng ba dëgër ba mu dëgër nga door a siggi ca sujjóot ba boo deful loolu rek sujjóot ba ma matut rukkoo ba matut kon képp kuy def naafile yi nga bàyyi xel lépp solo ci julli mooy melo bi nga koy defee sell rakkaa yu bari yi bari na ci borom xam-xam yu bari bari wax nañ ne anam gu rafet gi sell moo gën rakkaa yu bari yi te sellut te yonente bi alayhi salaatu wassalaam xoppoon na koo xam ne nii day def lu mel noonu ay rukkoom du mat ak ay sujjóotam du mat mu nuróole woon ko koo xam ne day jël àll jàmbur mooy addis boobu nga xam ne imaamu Tabaraani moo ko génne ak xaakim wax ne yonent bi wax na ne aswa un naasi sariqatan allati yasriqu min salaatihi nee na ki ñaa gën a ñaaw aw sàccen ci nit ñi mooy kuy sàcc ak julleem ñu ne ko nan la nit di sàcc ci julli mooy koo xam du mottul rukkoo ya du mottul sujjóot ya day koy nuroo lekk ginaar kuy cof kooku ak julleem daa mel ne ku tey sàcc ay ponk bàyyi ko yonente bi nee na jëf yi ñaaw la joo xam ne ab julliwul koo def kon taraawiix yi bu baax a baax la waaye nag nga aju ci nga teewlu ko te ànd ceeg sago def ko ci anam gu ma sëkk-sëkk waaye yàkkamti mu la yóbbe ci nga patam patamee ko ba ba génte na maram melu ni donte ñaar rakkaa yooyu teewlu la sax moo gi nga jum nga julli fukki rakkaa yoo xam ne da nga koo cof ñaar rakkaa yi nga xam ne da nga koo teewlu rek la nga ci ponk ba nga joo xam ne anam gi gën a mat moo gën a rafet fuuf moo gën a mat nga julli woon rakkaa yu baree bari yoo xam ne nii dañ caa ba ba manquil ay ponk yu baree bari wallahu muwaffiq lis sawab
kii moom day laaj mu ne nan la ñuy tuddee doom ak luñ ca war a def
waaw sëriñ Seex da tudd doom sëriñ bi am na téere bu mu ko andi ñu koy wax mañ maawoon nooree ni daf caa wax na moom sëriñ Tuubaa radiyallahu taala anhu ci kitaab téere bi mu tuddee mañ maawoon nooree ni fii fawaa'idi daaray ni daf caa wax ne ku yàlla wërsëgale doom war ngaa def lii di ñëw mooy nga jàng ñaan gi ñaan nga ma nga tàmbalee ci allahumma lakal hamdu ala ma ahtayta wa awlayta wa asdayta allahumma zidna wala tanqusna wa akrimna wala tuhinna wa aasirna wala tuusir alayna wa bismikal kaafi ikfina allahumma ij'alhu barran taqiyan wala taj'alhu fajiran shaqiya ñaan ko ngay njëkk a jàng daal di wëlbati liir ba noddu noddu gu ma sëkk ci noppam lay jooram dellu wëlbati waat ko nodd liqaam ci nopp càmmoñ ba daal di wëlbati liir bi tufli tuubi ci nopp ndeyjoor bi noonu moom anam bi sëñ bi wax na ci la ñuy noonu lay tudde doom xëy na li tegee ci laaj bi mooy waman la siyi ji bo alxiyaam maanaam li mu war a def li mu war a def bu fekkee day jublu bisu ngénte bu ñuy tudd doom ji lan lañu war a def bu fekkee loolu la bëgg a laaj mooy bar am na yu ca war bokk na ca gàtt bi ñu koy rayal ñu koy tudde gàtt bu ngénte al aqiqatu gàtt boobu sunna la dañ ko war a rayal xale bi gàtt boobu moo gàtt bi ñu rey ci tabaski ñoo bokk ay at bu dem xar faaw matum at bu dee béy faaw mat at ak genn ba dugg ci atum ñaareel ma te dañ ciy sart mu doon gàtt boo xam ne nii du lompañ te du am benn tawat te du daal sëkk ci bët yi bokk na ci li ñuy def ci bis boobu tam ci xale bi mooy ñu wat kawaram ñu wat kawaru xale bi peese ko saraxelu toll noonu ci or wala ci argent muy xaalis xëy na léegi ginnaaw yooyu yombatu andis na ko wutaleeg xaalis bi ñu jëfandikoo léegi waaye ba yooyu di am moom dañ daan wut lu mel ne or buñ nattee peese kawaru xale bi jël lu toll ne or ci loola saraxe lu toll noonu wala lu mel ne xaalis bi ñuy takk saraxe lu toll noonu bu fekkee loolu jàppandiwut manis naa ko wutaleeg xaalis bi ñu jëfandikoo léegi muy CFA bi masalan sëriñ bi wax na ko téereem boobu mu tuddee nahjul xaqiqa fii hat fii hat ki sitril aqiqa wax na ca ne bis bi li nga ci def mooy fal tabtadi bi xalqiha masbaha nadban wa bil wasni tasaddaxtum daxa min zahabin aw fiddatin wa ba'da zi aw maaha aw qablaha al ismu tusi ndaa wax ne bisu ngénte boobu li nga ci def mooy loolu dañuy njëkk wat xele bi bu noppee rawe ko gàtt bi buñ noppee sarxe lu toll ne tolloog kawar gi ci ci ci xaalis wala wurus daal di koy tufli tur wa nag tur wa nag mën naa ànd ak bu ñuy def loola wala bu ñu defee loola ba noppi daa mel li gën a siiw nag mooy bu ñuy bu ñu tuddee ba noppi dañuy doon defar gàtt bi sëriñ Mbàkke Buso radiyallahu taala anhu am na téere bu mu ci taalif tuddee ko salaasatu fusuul nga xam ne xale bi fi muy juddoo ba fi muy fere li war ci xale bi yëpp wax na ko ci ci xeeti ñaan ci lu xala arab yi la ko bindoon waaye yàlla dogal na Cheikh Mouhamadul Mamoun Niang xafisahullahu taala wa raa te traduit woon na ko bu yàgg maanaam doxoon na ko ci loxo ci làng wolof bu yàgg-yàgg bañ mool ko kon képp koo xam ne bëgg ngaa yaatal sa gëstu ci mbirum tudd ak yi ci aju boo amee téere bu sëriñ bi def muy naajul xaqiqa fii xakki sitril aqiqa wala nga am salaasatu fusul boobu moo xam bu arab wala bu wolof xëy na da nga mën a gën a yaatal sa xam-xam ci wàllu googu wallahu muwaffiq lis-sawab
ahsanallahu ilaykum mbokk mi day laaj mu ne lan mooy li ñuy wax taawil bu jege ak taawil bu sori ci weeru koor wi waaw sëriñ Seex ñuy wax taawil day ñaari xeet taawil mu gàtt arab la moom mooy rek defe ne nii la war a demee day ñaari anam yu bokkut am ci bu ñuy tuddee ak taawilul ba'id ak bu ñuy wax ak taawilul qarib ak taawilul ba'id ni ñu koy waxee mooy ci woor weeru koor dog koor gi sukkandiku ci loo xam ne amagut dog gi da ko teg ci loo xam ne xëy na mën naa am waaye amagut ñu koy misaale ci koo xam daan def bis sàngam daal léeg-léeg si guróor la ko cee dal wala am na tawat joo xam daal bis sàngam da koy faral di daane mu ne tey de sama tawat di daal ñëw dina ñëw kon nag duma woor ndax bu ñëwee duma ko mën a booleeg woor daal di dog kooka moo xam tawat di ñëw na moo xam ñëwut faaw day fay bis boobee te fii boole kafaara ndax dañuy wax taawil bi taawil bu sori la bokk na ci misaalam tam jigéen joo xam daan gis baax bis sàngam weer bi ci tollee ci bis sàngam baax bi ñëw mu ne xëy na suba de wala si biir baax bi ci daan ñëw kon nag duma woor yàlla dogal mu bañ a woor bis boobee moo xam baax ba ñëw moo xam ñëwut faaw bis boobu da koy fay te da koy kafaara loolu mooy ay misaal la ci li ñu tuddee at-ta'wilul ba'id at-ta'wilul qarib nag mooy ni fi nga ko teg xëy na xel mën na koo nangu mooy sukkandiku ci loo xam ne lu am la moom daañ ko misaal ci koo xam ne daa amoon amee woon janaaba ci guddi gi bi fajar di jot sanguwut ba na fajar ba ba jant fenk wala waxtu jàpp jot sanguwut kooku mu jàpp ne moom ginnaaw sanguwut rek maanaam bu waree du baax boobu xëy na manis na koo nangul taawilam boobu ci taawil yi ñu nangu la bokk manis day fa kooku day fay rek waaye du kafaara bokk na ci misaal yi ci joxe tam ku tukki woon tukki boo xam ne ne matut tukki wàññi wàññi julli ak dokkoor moom mu daal di dog jàpp ne rek xëy na boo tukki rek lu gàtt gàtt mën ngaa dog ndax mu dog sukkandiku tukki boobee kooku tam ulama gi dañuy wax ne maanaam kafaara tawil tawil xarib lañ koy tuddee moom it day fay rek waaye kafaara du ko war kon Serigne Cheikh ñaari taawil yooyu ñu am ku njëkk ki faaw day fay kafaara kafaara weeru koor nag xam naa diis xëy na daañu tax siwaat waaye lu diis la keneen ki nga xam ne nag fi mu sukkandiku xëy na xel nangu na ko wala lu mën a am la wala lu am ba noppi la kooku moom day fay rek waaye du kafaara wallaahu muwaffiq lis-sawaab
mbokk mi day laaj mu ne koo xam ne dafa am ay taab ci ginnaaw gi te bu sëggee mën naa am dëtt génn ci moom mu ne kon su boobaa nu muy def ci julli gi.
waaw sëriñ Seex kooku day julli rek day julli waaye loolu di génn ci moom dañ koy jéggal ndax borom xalil boo ci demee mi ngay wax naan wa asaru dummalin lam yunka maanaam dummal mooy loolu mu wax mooy ay lu mel ni ay tupp ay ay ay putu putu ak xeeti taab. nit ki yore bu fekkee sabab lu wut dëtt ji génne ci moom nga xam ne yàlla dogal mu génn noonu rek waaye bës ko def ko dara kon bu jullee itam dana baax waaye bu fekkee moo ko bës ba dëtt ji génn boobaa day daal di nekk sobe faaw mu dem raxas ko loolu julli waaye bu fekkee daa génn noonu rek ginnaaw bi mu laabee ni mu war a laabee def na ko yor sol na yële yu raab ginnaaw ba nag loolu génn ci moom te teyu ko loolu nee na jéggal nañ ko ko ci ni ko borom xalil andee wallahu muwaffaq lis-sawab
jërëjëf sëriñ bi kii moom day laaj mu ne lan mooy àtteb koo xam ne dafa julli ajjuma ba noppi fàttaliku ne moom julliwul suba
kooku de sëriñ Seex dara waru ko day fay julli suba ga rek ndax toftale diggante ay julli da cee am loo xam ne toftale boo xam ne day nekk lu war ba nekk nekk sart mooy ñaari julli yoo xam ne dañoo bokk waxtu bu mel ne tisbaar takkusaan bu fekkee da ngaa julli doon tàkk tisbaar ba takkusaan jot kon da ngay jiital tisbaar doola sañ julli takkusaan boo jullee takkusaan ji te julli dooru julli tisbaar ji du baax faaw da ngay baamuwaat takkusaan ji loolu mooy ñaari julli yi bokk waxtu moom tegale leen daa nekk sart bu dee ñaar julli yoo xam nag moom lañ tuddee yasirul fawaid lu mat ñeenti julli wala juróom moo la raw moom it liñ sàkk ci yow mooy bala ngaa julli julli gi teew nga julli julli yooyee nga xam ne dalaa faatoon te bariwuñ lool lu néew julli yu néew yu faat ñu ngi koy nattale ci ñeenti julli ngeen jaabari juróom ñeenti julli moo ci ëpp mooy wax ji gën a dëgër kon day mel ne suba ak àjjuma bokkuñu waxtu kon li waroon def rek mooy bi mu laataa julli àjjuma ji mu julli suba gi ba noppi waaye ginnaaw fàtte na ko ba julli àjjuma ba noppi day fay suba gi rek te ba àjjuma ji mënu koo baam bu ko bëggoon baam du yomb ndax àjjuma moom daa am sàrti boppam kon kooku julli gi mën naa julli fay julli suba gi rek te xam ne dara waru ko julli waaye nag am na ci bàkkaar ndax ñàkk gi ñàkk a tegale ñaari julli yi fekkee moo ko tey na ci am bàkkaar fekkee teyu ko nag suñu borom subhanahu wa ta'ala du jàppe kenn loo xam ne ngaa juum wala da nga ko fàtte li muy jàppe ab jaam mooy ku tey dara def ko waaye rufi'a al-qalamu anin nisyaan wal xata suñu borom da koy jéggale wallahu al-muwaffiq lis-sawab
kii moom day laaj mu ne li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne aftara alxaajimu wal mahjum mu ne loolu lu muy tekki
waaw fi mu fekk addis boobu mi ngi ki bokk ci addis yi nga xam ne Saddaat ibn Aws moo ko solo jële ko ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ni mu tëdde mooy daa wax ne yonent bi daa mas a ñëw fekk benn waay ci albaqiya albaqiya mooy almali yooyu sës ci jumaay Madina jëm foofa lañ daan denc ñu njëkk faatu jullit yi saxaaba yu bari ñu nga foofee mu fekk fi benn waay muy muy muy def ixtijaam mooy nàmputal ci weeru koor ci la yonent bi waxoon ne aftaral xaajim wal maxjum kii nàmpatal dog na kii muy nàmpatal tam dog na am ñaar ñëpp seen koor yàqu na boobu addis bu yore la wax ne imaam muslim moo ko soloo borom lenn ci borom xam-xam yi nag ci lañ sukkandiku ba wax ne seenu koor da yàqu moom mutlaqan waaye lépp ci borom xam-xam yi nag wax nañ ne addis boobu dañ koo nasaxal dañ koo nasaxal ci benn addis boo xam ne Abdullah ibnu Abbas moo ko soloo jëlee ko ci wax ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam mas naa nàmputal te booba daa nekkoon ci armal am na waneen yoon tam mu nàmputal booba daa wooroon yaxtajama wa huwa muhrimun waxtajama wa huwa saa'imun muy addis boo xam ne imaam Buxaari moo génne ñaari addis nag buñ dajee te yépp wér dañuy wax dañuy jëfandikoo li ñuy wax maanaam ak tarjeex maanaam dañuy seet murajjihaat yi ban lañ ciy jël ñu wax ne ginnaaw addis bu Saddaat ibnu Aws bi daa jiitu ndax moom ma ngi ko waxoon te amul fatt ba ñu ubbi Makka la ko waxoon te addis bi Abdullah ibn Abbas solo moom mi ngi xewoon ci jamono xajjatul widaa te xajjatul widaa moo mujj fatu Makka loolu xaw ci sukkandikoon ne addisu Abdullah ibn Abbas bi daal na saxal addisu Saddaat ibn Aws ba borom xam-xam yu bare léegi rawatina suñu ngir mi sukkandikootuñ ci addisu Saddaat ibn Aws Aws mooy ku nàmputal ci weeru koor du yàq sa koor looloo nag dañ ko sib nag dañ ko sib ci ki ñuy nàmputal ndax li tax ñu koy sib mën na koo néewal doole ba yóbbe ko ci bu dogul koorkaat mu andil ko coono yoo xam ne xëy na mën na ko andi jural ay lor ba tax na nag li leen gënal gënal fuqahaa yi mooy kuy bëgg a nàmputal tam nga bàyyi ba dog koor gi ci guddi gi nga door a nàmputal mooy li gën waaye boo ko defee ci bëccëg bi tam nag taxul sa koor yàqu wallaahul muwaffiq lis-sawaab
kii moom day laaj mu ne lan mooy atteb koo xam ne day julli waaye ràññeewut farata yi ak sunna yi day julli noonu rek
waa sëriñ Seex de loolu masala boo xam ne sëriñ bi radiallahu taala anhu mu sëriñ Tuubaa tudd na ñaari téere yu am solo muy tasawudu subaan ak tasawudu sixaar ku ci nekk rek ën na fa masala boobu leeral ku leer gu yaatoo yaatoo yaatu xëy na mbokki taalibe yi teew ñu bari jàng nañu ñaari téere yooyu ku ku seetlu da nga xam ne sëriñ bi ën na ci abyaat yu bare bari ci masala moomu nga xam ne la koy tënk daal mooy ñaari wax lañ ci wax waxtu njëkk ji mooy wax imaamul Awfi daa wax ne ku def loolu nga xam ne da ngay jaamu yàlla moo xam julli la moo xam woor moo xam lu ma doon ci xeeti jaamu yàlla te xam ne woo farata ak sunna ya sag jaamu yàlla du baax ba teg sax ne dañ koy amee bàkkaar tuyaaba nga doon gudd waaye bàkkaar lañ far topp ndax ñàkk gëstu ga ñàkk xam nga ginnaaw ba sëriñ benn waxe ñaareel ji wax na nag lañ wax am na ñeneen wax nag ne walaysa saa ismin summa salaatuhu saxiixatun iza nawaa ada ard fardi rabbihi isa wa laysa sa ismin wala asyaani li xadamil baxsi mahal itqaani waxi ñaareel bi ko sëriñ bi indee dafa wax ne am nañ ci borom xam-xam ñu wax ne julleem gi wér na ñàkk ñàkk xàmmee sunna yi ak farata yi lu tee julli gi baax na bu fekkee ba muy julli daa jàpp ne lépp farata la rek daa yéene woon ne fa sinwaa joxe farata ji rek kon ñàkk ñàkk xàmmee farata yi sunna yi lu tee julli gi baax na ndax seetlu nañ ne farata yi sunna yi xëy na ñi njëkk a dugg ci lislaam booba dañ daan julli noonu waaye ginnaaw bi fuqahaa yi ñoo ñu tàggale andi ci tafasir yi muy détails yi tudde li farata tudde li sunna ba tax na kon boo jàppee ne jaamu yàlla gi ngi defal lépp farata la moom jaamu yàlla gi dana mat dana baax doo ci am bakkaar xanaa boo jàppee ne li ngi def day sunna tam fekk nag mu farata foofa la ñuy wax waaye fekkee la sa xol da ngaa jàpp ne li muy def daal farata la lépp lépp kon jaamu yàlla ga manis na koo nangu sëriñ bi sa teg na ci ne waaw kon ñaari wax yi li tax imaamul afu waxoo dëkk jee ne julleem du baax du la ci am bakkaar mu ne li tax mu wax ko daa bëgg nit ñi gëstu gën a góorgóorlu ci xam seen mbirum diine gën a gëstu seen diine ba xam ko ndax lu ci nekk daa am àttee boppam booy julli bàyyi farata am na àtte yu la war mooy faaw da nga indi farata ja moom am na ko mën a ndee booy julli bàyyi sunna nag xam ngeen da nga koy sujootal sujootu xabla kon am na àtte yu ñu wute yoo xam ne boo leen xam ne wut mën ngaa bàyyi kenn ci ñoom ñaar loo xam na ngay def moo tax xam ne gi nekk lu war moo tax sëriñ bi sax ci tasawudu suxa sixaar da ko mottalee buntu boo xam ne qultu waxat xarama rabbuna ala kulli mukallafin ala ma nuqila fi'lan bi xayri bi xayri ilmi xukmi shar'i fiihi fa sa nassu dalilun qat'i man kaana jaahilan bi fardihi walam yasal fa nafsahu abada wa zalam sëriñ bi ba mu tëjee bunt bi mooy man de sama waxe bopp ne wax mooy suñ borom araamal na fi mépp mukallaf muy jëf-jëf bu mën a doon te xàmmeewut la ca suñ borom àtte jëf jooyu mën a dugg rek bala nga caa dugg na nga xam na ko suñ borom bëggee ak lam ci àttee ci aju nga door caa dugg ndax nee na koo xam ne nga réere sa farata te nangu koo laaj nangu woo koo laaj nee na kooku yaa tooñ sa bopp loolu daal yaa ko teg sa bopp kon day mel ne sëriñ moom mi ngi soññ bu baax a baax jéem a góorgóorlu jàng jéem a xàmmee farata ak sunna yi ndax jaamu yàlla yi ñuy def lu nekk ñu xam la cay farata ak ciy sunna bu yàqoo ñu xam nañ koy defale wallahu al-muwaffiq lis-sawab jërëjëf sëriñ bi kii day laaj mu ne lan mooy atem ñaari rakkaay fajar ak ndax ku julli suba ba noppi mën na koo fay bu sëlmalee suba rek mën na koo fay ndax fay gi dafa nekk lu war wala dañ koo sopp
waaw sëriñ Seex ñaari rakkaay fajar moom lañu fi ar raxiba yeneen naafila yëpp naafila lañu wax ay moom raxiba dañ koy wooyee turu boppam la am moom nag bari na addis yu ñëw yoo xam ne dañuy wax ay ngëneelam bokk na ci rek addis bi Sayyidatuna Aïsha radiyallahu anha solo wax ne yonente bi saa sallam waxoon na ne li ma gën a bëgg ci àdduna de mooy ñaar rakkaay yooyu jiitu suba gi mooy ñaar rakkaay fajar ahabbu ilayya min dunya wa ma fiha àdduna bu ñu ma ko jox lépp di ma jox tuyaabay di nekk ci raxibatu kon loolaa ma koy gënal waxaan na ci benn addis moom sayyidatuna Aïsha tam wax ne seetlu wut woon ne yonente bi daal daana saxal genn naa fi la ñu daan saxale ñaar rakkaay yooyu ñaar rakkaay fajar yi jiitu jullit soo ñu ko tuddee raxibatu ni mu ko daan saxale mos koo saxal genn naafila moom na ngeen ko xam ne ñaar rakkaa lay doon yoo xam ne da nga koy yàllu day jiitu jullit suba bu ñu noddee nodd gu mujj gi ba noppi foofu lañ koy dugal ñaar rakkaa yi waaye fa lay doon am na ci borom xam-xam ñu wax ne man nga jàng fatiha rek yam ci waaye sëriñ moom ñu wax ci masaalikul jinaan mooy nga jàng fatiha ci rakkaa bu njëkk bi ak alam nasrah rakkaa ñaare bi nga jàng ci fatiha ak alam tarakay faala nee na boo ko defee dañ la musal lépp loo ragal waxtu li mu laajaat ci wàllu fay gi moom moom rek mooy sunna suñuy fay mboolem xeeti sunna yi yées bu la ci xasaraw rek wàcc na la waaye raxi ba moom dañ koy fay fayam nag yàggut ndax bu li ban jant fenkee ba njolloor rek ba njolloor rek fay gi jeex diggante boobu rek lañ koy fay waxtu fay gi tam mi ngi tàmbalee ci bu jant fenkee ba naafila dagan kon fekkee da nga koo yaax a def ba julli soo ba noppi ngay bàyyi ba jant bi génn lu tolloog ab xeej naa ne yaa ngi koy seen daal nga nga nga daal di koy fay fay googu ñu koy def nag borom xam ne dañuy wax dañ ko sopp mustahab lañ ko jàppe waaye nekkuñ nekkul waajib nekkul war kon luñ sopp la kon daal Serigne Cheikh li mu laaj ci wàllu jullit fara jullit maanaam fajar googu àtte yooyu moo ci aju wallahu muwaffaq lis-sawab
mbokk mi day laaj mu ne lan mooy àtteeb koo xam ne ni day fo ci awraam ba yëg boppam ak yan jeexit la loolu mën a jur.
waaw Serigne Cheikh de loolu la ñuy tuddee al istimnaaw ci loxo arab yi mooy di fooye sa bopp ba am bànneex loolu nag lu dàkkoon dàkkoon teg jikkoy lislaam la rafetut ci lislaam wala xam-xam itam rafet luñ ko li gën a lëng ci masab Malik sax mooy dafa araam ku ko def def nga jëf ju araam ndax ñu ngi ko teg ci wax suñ suñ borom dim ne wallazina hum li furujihim xaafizuuna illa ala azwajihim maanaam nit ki pëy dañ ko war a sàmm ci loolu sa soxna bu dee góor soxnaam bu dee jigéen borom këram waaye anam geneen anam goo def rek ba jot sa bànneex ci loolu yoon woowu jaar nga ko ci yoon woo xam ne araam la kon fuqahaul maliki moom li ñu wax ne daa araam muy jëf jooju li ci mën a juddoo ci jeexit nag mooy dëgg la moom gëtën waru ci ko def kenn du gëtën waaye nag da nga ci am bàkkaar boo xam ne mat a tuub la te ku ko def ci bëccëg koor ba am lu génn ci yow koor gi day yàqu te bu fekkee yaa ko tey da ngay kafaara boole ci da nga génne da nga génne man yu tay ko xam nga ne tam médecins yu bare bari dañ koy moytuloo nit ñi ndax wax nañ ne am na lor yu bari yu ci yu ci mën a juddoo yoo xam ne daal lu ma ta moytu la yonent ba li mu santoon ndaw ñi mooy man istataa minkumul baa'ata falyatazawwaj wa man lam yastati fa alayhi bis-sawmi fa innahu lahu wijaa'un yonent daa waxoon yeen ndaw ñi ci toll ci mat am soxna te am man manu maa takk soxna nga ko def boo ko mënul nag na nga faral di bari woor ndax woor dana wàññi bànneex bi ba dootoo jàmbat bi dugg kon daal yooyu la islaam tëral nit ki mën cee faj ay bànneexam waaye wayen yoon wu dugal rek boo ko defee dañ ci am bakkaar wallahu al-muwaffiq as-sawab
mbokk mi day laaj mu ne lan moo wuutale masiw ak wadiyu ak maniyu
waaw sëriñ Cheikh da yooyu lu ci nekk luy génn ci nit loo xam ne day firi am njàpp ku mu génn ci yow sam njàpp day daal toj leen tàqale nag mooy li mu njëkk wax muy almasiyu boo demee ci borom risaala day wax ne ndox la moo xam ne day sew loyox am day weex te loyox day xaw a wayaf daal kañ lay génn mooy bu nit yi xalaat diggante góor ak jigéen ba xelam ne ci mën naa génn mu ñaareel muy wadiyu mooy ndox moo xam ne bu gaan waaye lay génn mu day xaw a tal day far moom li ci war rek mooy li war ci ngaan waaye mooy raxas fu mu doon génn bu dee léegi ma njëkk wax ne muy almasiw da ngay raxas génn waaye ba noppi raxas waaye raxas waaye maanaam fa mu génn lépp cër ba yëpp da nga ko raxasaale bu dee mi mujj wax nag muy almani yu moom mooy ndox mi nga xam ne moom la suñu borom di sabab doom di ci juddoo mooy mi nga xam ne day borom xam-xam bañ ko jàngale naan yaxruju inda lazzatil kubra maanaam bànneex bu ma sëkk moo koy génne moom it xam ngeen ne li ci war mooy kum génn ci yow da ngay sangu farata sangu farata lay war fekk génn ci anam goo xam ne noonu la war a génne daa nag bànneex sangu farata da ci war bàyyi xel tam ne moom it bu génnee ci bëccëg bu ramadaan bëccëg bu weer koor da yàqu koor tey bu fekkee ku génne moo ko tey day di ci boole maanaam fay koor ga ba noppi kafaara man ko xamee daal ne ab mukallaf moo xam góor wala jigéen war naa xàmmee ndox yi génne ci moom wala lu ci nekk mu xam atteem ndax bu ci nekk ñetti xeet yooyu daa am atte boppam boo xam ne moo tax xam la lu moo tax sàmmonte la wax boo ko deful mën naa am sag laab sag laab dana xaw a des wallahu muwaffiq lis-sawab
sëriñ bi kii moom dafa bëgg ñu leeralal ko sunu borom fi mu wax ci alquran ne fa damdama alayhim rabbuhum bi dambihim fa sawwaha fala yaxaafu uqbaha
waaw sëriñ Cheikh da ñaari aay yooyu ñooy ñaari aay mu mujj sóotu samsi muy aay yoo xam ne dañoo ñëw ci histoire samud samud mooy nit ñooy nga xam ne ñoom la yàlla yebaloon sayidna saalex ci ñoom mu nekk seen yonente xam nga bañ ko weddee laaj ko ak mojisa suñ borom da ko jox li ñuy wax naaq ak naaga mu nekk mojisaam ña ko weddi woon nag dëgër bopp ba dem ba ray naaga googee ngir weddi saalexu bañ ko defee nag suñu borom ci la leen mbugal mbugal moom la leen nettal ci aay yi nga jàng léegi baatu fatam dama xëy na ni mel noonu tax mu koy laaj ndax ni mu bindoo lu mu bariwul luñ ko jëfandikoo ci wax arabiya waaye mooy màbbu rek màbbu ma ma sëkk sëkk màbbu mi ba maase maa mu jublu ci ne mbugal ma ba muy ñëw da koo dëpp ci ñoom ñëpp ñu weddi woon ñëpp la dal kenn mucc ci fa sawaaha ji mooy daa da koo maasale bàyyiwul kenn giir gi yëpp la alak kenn mucc moo xam gone moo xam mag moo xam ko am alal moo xam ko ko néew li ñëpp la suñu borom maasale faagaagal leen mootale aay bi nag falaa yaxaafu uqbaaha suñu borom ay jëfam ragalu ci ku koy toppaat di ginnaaw bi di ko laaj li tax nga def lii ndax bokk na ci ay mbiram laa yusalu ammaa yafaalu suñu borom moom lu ko moom moom lépp moo ko moom lu ko neex la cay doxale kon bokkut ak attekat boo xam ne léeg-léeg bu attee mën nañ ko laajaat ne ko sa atte bi foo ko teg wala li tax nga attee nii suñu borom atte yi muy doxal moom ci coobare boppam la koy doxale bu ko defee ba noppi tam kenn amul sañ-sañu laaj ko li tax nga attee nii moo tax mu tëjee saar wi ci falaa yaxaafu uqbaaha suñu borom du laa du ragal mujjug atte boobu ndax amul kenn ku ma am sañ-sañ di ko laaj li tax nga atte nii wallaahu al-muwaffiq lis-sawaab
kii moom day laaj mu ne jàkka joo xam ne imaam bi jiite na ànd ak mbooloo mi ba noppi ndax meneen mbooloo mën nañoo ñëwaat jiital kenn mu jiite leen
sëriñ Seex da li lëng ci ngirum Maalik mooy dañ koy sib dañoo sib jàkka wala jumaa joo xam ne am na imaami raatib buñ jullee farata ba noppi meneen mbooloo ñëw di fa julliwaat julli mbooloo boo demee ci muxtasaru Cheikh Khalil ma ngi ko fay wax naan wa i'aadatu jamaatin ba'da raatibi ba muy lim yëñ yëñ sib da caa boole ci ci julli mbooloo lañ ci sib boole na ca baamu mbooloo moo xam ne ginnaaw bi ñu jullee ba imaami raatib jullee ba noppi lañ ko fa boole man soo ko misaal ci ñu doon dem ci barab rek doon bu jàkka wala jumaa def ab groupe dugg ci jumaa ji wala jàkka ji fekk ilimaan julli ba génn wala man ko sax ñu ànd di julli jiital kenn ci ñoom loolu bu dee ci suñu masab bi moom dañ ko sib kenn waru koo def te sëriñ bi radiyallahu ta'ala anhu dénkoon nañu ne na ngeen taqoog masabu Maalik mooy masab bi ma leen dénk kon ñooñu fekkee dañu bëgg am gëneelul mbooloo lañ leen sant mooy ñu génn ci jumaa ji dem ca maanaam fa ko wër julli fa jiital kenn mu jiiti leen waaye buñ buñ bëgg ñu def mbooloo ci biir jumaa ji wala biir jàkk ja loolu mooy li ci fuqahaul maalikee wax wallahu al-muwaffiq as-sawab
kii moom day laaj mu ne koo xam ne dafa dugg ci lislaam ci bëccëgu weeru koor ndax kon day war a jàpp lu des ca bis bi wala déet
waaw Serigne Cheikh day du war ci moom mu jàpp waaye sopp nañ ko nag sopp nañ moom mu jàpp la des ci bis ba te sopp nañ tam mu fay bis boobee bu koor ga jàllee bu ramadaan ba jeexee mu jël ci yenn bis yi fay ko bis boobee moom la boroom xalil di wax ne wa imsaaku baqiyatil yawmi liman aslama wa xadaa'uhu maanaam ki dugg ci lislaam ci bis bi ci weeru bëccëgu weeru koor mu bañ a mu jàpp mel ne woo ku woor la des ci bëccëg ba bu koor ga jàllee tam mu fay bis boobee du waram ci moom nag waaye luñ sopp la daal ndax ñu sopp ko ci moom nag mooy ginnaaw daa dugg ci lislaam rek dañoo bëgg mandargay islam teere feeñ ci moom bu duggee rek ñu commencé pratiquer l'islam ci saa si loolu rek lañ jublu waaye nekkul loo xam ne dañ ko waral ci moom dañoo bëgg daal ginnaaw moom toxoo na ca lee ñëw ci lislaam bi nga xam ne mooy diine ju wér ji mu daal di koy feeñal ci cëram xaat bañ xam ne kii daal li mu nekk caaxaanu ci décision la ci jël bu wér-wér moo tax sax nangoo tuddee lekk des ci bis bi waaye nag bu wéyoon di lekk ak naan tam xëy na dara du ko ci war. bis ba tam bu ko fay itam dara war a ko ci bis ci sës daal la war a fay moom yooyu itam sañ koo dog te amul ngànt wallaahu al-muwaffiq bis-sawaab
koo xam ne dafa ñëw ci jumaa ji bisu ajuma fekk yilimaan yi yëg ci kaw minbar bi mu ne ndax kon dina nuyu nuyoo jàkka ji julli ñaar rakk ngir nuyoo jàkka ji wala mu ñëw fekk ñu nodd nodd gu mujj gi te tàmbale gu ñu xutba
waaw sëriñ Seex bu dee ci bu ilimaan di yëkki minbar bi moom li ci gën a wér mooy waxtu yi tere ko ci naafila la bokk waxtu yooyu kenn boo duggee ci jumaa ji fekk ilimaan di yëkki minbar bi wala mu nekk ci kaw minbar ba da ngay toog rek julli tahiyatul masjid da lay wàcc mën na baat yooyu jàng nag yoo xam ne mën na ko wóotu waaye jëmmi rakkaay tahiyatul masjid da lay wàcc sëriñ bi sax wax na ko jawharu nafis wax ne wan naflu in jalasa fawqal minbari imaamu jumaatin faqat kurhun duri dañoo sib bu ilimaan di xasee toog ci minbar bi ngay ngay naafila ngay nuyu ja nuyu def tahiyatul masjid wala nga bëgg a naafila naafila gu maa doon dañ koy sib kon li gën mooy bu ilimaan di xasee toog ci minbar bi rek nga bàyyi ba xutba ba julli ajuma ji jeex ba bañ bañ xutba ba julli ajuma gi jeex ba ilimaan génn jumaa ji nga door a naafila bu bëggee naafila wala bu bëggee naafila nga nekk ba génn jumaa ji yow waaye fekk ilimaan jaa ngi ci biir jumaa ji génn gu sax dañ lay tere nga naafila loolu tam mooy atte bu nodd tam mu bàyyi ba nodd gi daanu te bu fekkee ilimaan ji yéegagul ci minbar bi diggante mën na fee mën na fee naafila waaye fekkee nodd gi daa daanu rek ilimaan ji daal yéeg ci minbar bi te liñ gën a baaxoo ci nodd ajjuma gu mujj gi mooy balañ ko nodd day fekk ilimaan ji toog ci minbar bi kon day mel ne kon atte bee moo koy yóbbaale moom it ndax nodd gu njëkk la ñu njëkk a nodd boogub diir diggante bu mën si naa naafila moom bu noddee nodd gu njëkk gi ba kere ñuy nodd nodd gu mujj gi diggante boobu naafila daga nag boo ñëwee jumaa ji jumaa ji te dëgg da ngay def li ñuy wax tahiyatul masjid mooy def ñaar rakka nuyoo ko jumaa ji diggante wu tam bu la neexee yeneen naafila yu fi bëgg naafila mën ko fee naafila waaye daal bu ilimaan di xasee yeeg ci minbar bi moom waxtu woowu waxtu wu ñu bàyyi naafila ba julli ajuma gi jeex ba ilimaan ji génn ci jumaa ji nga door a sañ naafila biir jumaa ji wala yow nga génn jumaa ji ba dem sa kër wala nga dem ci benn barab ba sañ ngaa naafila wallaahu muwaffiq as-sawaab
kii moom day laaj mu ne lan mooy àtteeb koo xam ne dafa fàtte ñaari ponk ci rakka bu njëkk bi ci lu mel ni ki tisbaar nee na bi mu demee ba ci rakkam ñetteel bi nag mu door a fàttaliku ne moom kat bàyyi na ñaari rak ñaari ponk ci rakka bu njëkk bi mu ne kon su boobaa nu muy def.
waa sëriñ Cheikh de masala moom xam naa ko koy laaj gëmbul ci gëstukat yi la bokk ndax bokk na ci masala yi gën a xaw a fasu ci wàllu julli sëriñ bi sax bi mu koy saraa ci jawhar nafis ënd na ci lu jege juróom-ñetti bayit yépp yoo xam ne ci loolu rek la aju ma ngi ko tàmbalee ci wa in tasakkarta sujudal mansi yaasal musalli ba'da raf rasi di wax wax ba ca mujj ga mu ne islam tafur suratuha wala julus laakin na si daqiqatun liman yaqiis waxam jooju dima laakin na si daqiqatun mooy wane ne masala mu xaw a fasu la liñ ci mën a leeral daal mooy ñaari ponk yi du sart doonte benn ponk la tam ni mu demee ma de doon julli tisbaar wala takkusaan wala gee yàlla dogal mu am rakka boo xam ne ci ñaar rakka yu njëkk yi bàyyi na ca ponk ba songu rakkaam ñetteel bi ba rukkoo ba siggi door a fàttaliku ne moom kat rakka yi ñaar rakka yi jiitu woon am na ci boo xam ne ab ponk da caa manqué kon dañ ko naan léegi yow kat melal ne rakka boobee manqué ab ponk mu jàppal ne rakka bu yàqu la maanaam moomu bokkatu julli gi da nga koy da nga koy neenal rakka bi nga toll muy bu ñetteel jàppal ne mooy sa bu ñaareel léegi nga daal continuer sa julli boo continuer julli góor ba àgg nag ba àggal nag boo seetloo da ngay gis ne am na loo wàññi ndax li nga wàññi mooy rakkaab ñetteel boobu nga doon julli yow li xel di nangu mooy ba nga koy julli yow Fatiha rek nga jàng ndax da nga jàpp ne mooy sa rakkaab ñetteel rakkaab ñetteel Fatiha dong lañ jàng te rakkaab ba la yàqu woon waroon nga caa jàng Fatiha ak saar te rakkaab ñetteel bi moo wóotu rakkaab ba yàqu kon rakkaab bi wóotu bee yàqu moom it am lu ci manqué. kon da ngay sujjóot xabla nga am loo dolli itam ci julli gi li nga dolli mooy rakka boobee yàqu ndolleen la dañ koy jàppe ndolleen kon julli gi am na ndolleen am wàññi te loolu nag ba amee julli boo boolee dolli ak wàññi lay lay lañ lay sant mooy nga def sujjóotu sax bi mooy ñaari sujjóot yoo xam ne boo taayaa ba taay jeex tàkk nga sujjóot ñaari sujjóot taayawaat sëlmal loolu mooy sujjóot xabla salaam kon kooku noonu lay defaree julleem gi kon sëriñ Cheikh daal masala bu xaw a fasu la waaye ci waaye fan rek mën nañ ko waxe noonu mooy rakkaat bi mu toll muy bu ñetteel bi rek na jàpp ne fi la julli gi tolloogul mu àggaleeg julleem bu ko àggalee nag faaw mu sujjóot xabla salaam ndax bu settantaloo julli gi am na fu mu ci wàññi bu ko settantaloo am na lu mu ci dolli am ci lu mu wàññi kon loolu leen loolu mu boole ak ak wàññi gi mooy war ni koy sant mu sujjóot sujjóotu sahwu sahwu mooy sujjóot xabla salaam wallaahu muwaffiq as-sawaab
kii moom dafa bëgg ñu firil ko laaya ji suñu boroom wax ne wala talbisu alxaqa bilbatili wa taktumu alxaqa wa antum taalamuun
waaw sëriñ Seex da laay boobu mooy laaye ñeent fukk ak ñaar ci sootul baqara mu nekk ci biir laay yoo xam ne contexte boo xam ne nii ay laaye la yoo xam ne suñu boroom da ko jëmale ci banu Israil muy laay yu bare bare nag yoo xam ne ma nga tàmbalee ci yaa bani israil askuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa awfu bi ahdi awfu bi ahdikum muy wéy di wéy ba ci daanaka ñaareel ci mu jug sa yoqoor sufahaaw maanaam isi isay bu isa laqu fam yem daanaka aay yëpp boo ko seetloo suñ borom banu israil la ci waxal fii ci toll nag lim leen ci wax mooy wala talbisul xaqa bil baatili bu leen jaxase ak dëgg ak neen li ngeen jaxase dëgg mooy ak neen mooy tawret bi ñu wàccee ci yéen ngeen bàyyi ko fi di ci dugal loxal bokk ci di ko taxarif loolu leen di tere ci foofu wa taktumul xaqa ak di nëbbu dëgg nëbbu dëgg gi mu leen tere foofu mooy tawret ñëw na ci ne sayyidina muhammad yàlla dina ko yónni te mooy yónni bi mujj yónni waxoon na ko tawret boo demee sóotu saf sax wax na ko fa Isaa waxoon na leen ko ne leen am na yónni bi ñëw bu tudd ahmadu te bokk na ci yónni bi sallallahu alayhi wasallam muhammad ahmadu mooy leen bu ñëwee neen gëm yahud yi nag dañoo soppi tawraat génne ca loola loolu nag leen alxaan di àddu leen xupp naa leen bu leen def loolu bu leen wëlbati ak dëgg mu nekk ak neen bu leen fekk li suñu borom wax ci tawraat tam ngeen di ko nëbb loolu leen tere foofu ci ñaari aay yooyu di wéy nag di wax seeni mbir lu bare bare bari fañ jaar ak kooke rawen nag waag xisa yu bare bare daal ba Muusaa demee ci tiif ba ak yu atte yu bare bare daal yoo xam ne nii ci banu Israël la aju foofu la ko suñu borom andee andi ci lu bare bare loo xam ne daal jege na ñaari isib yoo xam ne ci ñoom rek lay wax wallaahu muwaffiq lis-sawaab
mbokk mi day laaj mu ne ndax dagan na ñuy jëfandikoo mala yu nekk ci géej te fekk mi ngi dund xëy na dafay dégg ñu wax ne géej lu fa lu fa dee mbirdam laab na mbirdam dagan na moo tax muy laaj loolu xëy na
waaw sëriñ Seex de li cosaan ci alxayawaanul baxar yi mooy lu loo xam di dund ci biir géej li ci cosaan mooy daganuk lekk ko donte biñ ko génnee ci géej gi daa métti itam dagan nañu lekk ko ndax addis ba njëkkoon a jàng ci njëlbeenu waxtaan wi ci njëlbeenu laaj yi mooy huwa tahuru maa'uhu alxillu mayitatuhu mooy dellusiwaat rek mooy géej moom ndoxam laab na lu ca nekk ci biir laab na tam mboolem lu dund ci biir géej rek doomu aadama sañ na koo lekk donte dama koy génn daa métti sax moo tax sax jën yi faral di jëfandikoo loo tax sariya daganal ko ndax ñaare bi génn ci géej gi rek daal di dee waaye teewul dagan nañu lekk ko borom fiqhu sunna sax wax na ko jaatal na ko boo xam ne mboolem lu nekk ci géej daal donte day dund ci géej jéeri ji sax waaye mën naa dund ci biir géej kooku bu meddee sax mën na koo lekk ba mu des mbott mbott daal wax na dañ ko tere ko ko lekk ndax yonent bi daa tere ko rey mbott daa bokk ci dundal yi nga xam ne suñu borom daa yonent bi saa soxna daa tere woon xetam ñu koy rey kon loolu rek bu jógee ci géej gi donte day dund ci jéeri ji lay lekk sax bu bu meddee manis na ko jëfandikoo wallaahu muwaffiq lis-sawaab
mbokk mi day laaj mu ne koo xam ne dafa am ab tool ba noppi jël joxe jiw wi mu ne ndax kon mën naa jël keneen koo xam ne nii day ñëw na ko kaay liggéey boo liggéeyee ba noppi ñu bokk ñu bokk liñ ci amee.
waaw sëriñ Seex rek ku daa mel day laaj li ñuy wax almuzaara ci fiq noonu lañ ko tuddee mooy loolu li ñuy wax fi jàpp ab surga rek ci suñ suñu réew mi loolu dagan la dagan la ci lislaam parce que maanaam contrat la boo xam ne sax yonent bi alayhi salaatu wasalaam daana ko jëfan jëfandikoo ci suufus xaybar bañ bañ ubbee xaybar loolu la signante ña fa nekkoon muy almusaara mooy ñuy bay suuf sa bu buñ demee ba récolter maanaam ba dajale lañ bay ñu séddu ko ci wàllam kon dagan na sëriñ Seex lu mel noonu am fuqaha yi nag dañ ci sàtt ay sàtt mooy suuf si na jóge ci na ko na doon maanaam jiw wi na jóge ci kenn ki kenn ki moom suuf si su ko defee kenn ki nga xam ne moo joxe jiw wi mooy féetewoo liggéey bi borom suuf si moom du féetewoo liggéey bu dee anam googu dana dagan bu leen neexee tam ñoom ñaar ñëpp ñu bokk suuf si kenn ku ne benn ñu luyee ko ñoom ñaar wala muy suuf soo xam daal dañ leen ko abal wala ñu ñu dogal leen ko wala moo xam nuñ ko amee daal waaye ñoo ko bokk ñoom ñaar ñu bokk nag kenn ku ne joxew jiw googu anam tam dagan na ñu seq tool bi bu tool bi ñoree ñu seq kenn ku ne la nga am ci lañ lañ déggoon ba ñuy tàmbali liggéey ba kenn ku ne da ngay am ci bénéfice ñu déggoo ci googu mooy anamu ñaareel gi dagan anamu ñetteel gi day mel ne moom sax moom lay laaj mooy ni ñuy faral def suñu réew mi rek mooy jël ko surga nga xam ne ni yow yaa moom tool bi moom jiw ndax daal même laaj defe naa ko ma ko déggee noonu lay mën a demee yow daal yaa moom sa suuf am saw jiw jël ko moom nag mu lay liggéeyal kooku tam dagan na waaye nag boobaa moom li ñuy dagan moom li ñuy dagan mooy léegi nga waxante moom ak pay goo xam ne nii bu bu liggéey ba àggee nga fay ko ko waaye doo ko sàtt ci tool bi rek nga koy aj bu dee mu saaran bee nag moom dañuy sàtt la tool ba génne ci meññet rek loolu lañuy jaay wala ñoo xam ne dañ koy séddoo daal ci digg ba wala ñu jaay ko séddoo njëg bu dee lii nag li mu wax nii nag moom li ci fuqaa yi wax mooy kooku ngi jul ab surga da nga koy wax na ko nangam laa lay fay mais daa mel ne sax léegi surga yu bari noonu lañu jëflante léegi bu njëkk bu yàgg yàgg daa leen def boo jàppee surga bu nawet wàccee nga koy door a jox ci ci ci ci li mu doon liggéey mooy dugub booy gerte waaye léegi dafa mel ne surga yu bari ba risque bi ci nekk tax na dañuy wax ak yow nangam rek jox ma nangam ma liggéeyal ba nawet wàcc ba nawet wàccee nga fay ko loolu moo xam yow sa nawet baax na moo xam baaxul daa mel ne wet góor googu daal fuqaa yu gën a ànd ci bu fekkee noonu la demee nga xam ne da nga ko jël ab surga noonu rek anam gi nga xam ne mën nañ tere ci musaara daal sëriñ Seex mooy yow ka am sa suuf kee amu jiwoom nga nga nga jox nga jox suuf si mu jox la jiw ba noppi ba ànd ba bokk moom liggéey bi ngeen bokk liggéey bi loolu lañ du nangu dañoo bëgg daal mu fekkee yaa moom suuf si moom boo doo bokk doo bokk ci liggéey bi ndax boo bokkee ci liggéey bi day mel ne kon yow sa peen mooy ëpp ndax suuf si daa gën a am valeur jiw wi ginnaaw nag jiw suuf si ëpp doole ak njëg nga boole ci di liggéey boole ci kon day mel ne yow li ngay liggéey mën naa ëpp lool lool la borom jiwoo di liggéey loolu rek maandu googu lañ ciy sàmm ba tax ñu ne bu fekkee kii daa moom suufam daal lim man mooy joxe kay joxe jiwu wa mu jox ko suuf si waaye bu ñu ta boole joxe suufam ba noppi liggéey di ci ànd di ci boole liggéey. masala moo xam ne boo delloo ci risaala ci baabul musaala yaatal na ko fa lool lool ku ci bëgg gën a yaatu mën ngaa dellu foofu gëstu ko fa gis na nga ko yaatale foofee wallaahu muwaffiq as-sawaab.
mbokk mi day laaj mu ne koo xam ne dafa nekk ci àll. xamut fan la xibla bi féete mu jekki-jekki rek dàkk fenn julli mu ne ndax ak julleem dina baax
waaw sëriñ bi de ibnu rusdin day wax ci bidaayatu mujtahid ne ittafaqa al muslimuuna ala anna tawajjuha nahwa al bayti shartun min suruti salaati li qawlihi taala wa min haysu xarajta fa walli wajhaka shatra al masjid al haram wa haysu ma kuntum fa wallu wujuhakum shatrahu day wax foofu ne mboolem fuqahaa yi déggoon nañ ci ne jublu kaaba gi moom ab sart la ci julli booy julli moom julli farata julli farata boo ko julli faw nga jublu kaaba gi ndax li suñu borom santoon yéen bi ne ko foo mën a nekk na nga jubale sa kanam kaaba gi booy julli ñu ànd ak yow tam maa ngi sant loolu aaya boobu mooy daliilu mooy tegtalu bu war a jublu ci kaaba gi nit ñi nag ni ñu jubloo ci kaaba gi day ñaari xaaj ni ñu jubloo xibla xibla mooy kaaba gi rek xibla niñ ci jubloo day ñaari xaaj molamaa yi dañ koy séddale ñaari xaaj xaaj boo xam ne ay nit ñoo xam ne nii am nañ kàttanu mën a def li ñuy wax ittihaad mooy gëstu ba xam fan la xibla bi nekk koo xam ne am nga xam-xam boobu mën a am na xam-xam boo xam ne mën nga cee jaar ba xam fi xibla féete yow kon waroo roy kenn ngaa war a def si gëstu bopp ba xam xibla gi nga jublu noona moom la borom xalid di wax ne wala yuqallidu mujtahidun mujtahid seen roy moo xam roy li jublu mooy nga fekk barab rek ab ab mexraab na fa nga nga nga nga jublu noona fa mexraab bu jublu te wóoru la ba xam xibla la am des ndax léeg-léeg mën nañ ko jubale mën nañoo juum ci jubale ga wala nga gis aw nit di julli rek am fu ñu jublu nga ànd ak ñoom julli te xamoo ba xam ay borom xam-xam jàggi kooku boo dekkee mu taxit loolu waroo koo def yow foo mën a dem da nga war a gis ba xam ne xibla fii la nga jublu noonu mu des ki nga xam ne nag amul xam-xam mën a gëstul boppam ba xam xibla ji kooku li ko waral mooy lenn ci àtte yi di ñëw benn mu seet mu fekk ko xam xibla mu roy ci moom mooy mujtahid bi mu topp ci moom fa mu jublu mu jublu fa wala mu dem xool mexraab dëkk ba mu wàcc mu xool mexraab ba fa mu jublu mooy fii imaam ji taxaw buy buy julli fa muy taxaw fa mu jublu mu xam ne loola mooy xibla ja mu roy loolee moom la wax ne waxallada xayruhu mukallafan aarifan aw mexraaban koo xam ne moom xamoo fi xibla féete te amoo jumtukaay yoo ko mën a xamee kon da ngay roy ku ko xam boo gisul kenn ko xam nga wër ba xam da nga gis fu jàkka nekk boo gisee jàkka yi nga xool fa mexraab nga jublu nga jublu noonu bu loolu lépp amul na nga xam ne mujtahid bi dem na ba gëlëm ittihaada mayatu ko mu mu mu xam li mu mën a gëstu xibla wala ki nga xam ne moom yàlla dogal na amul xam-xam bi far sax te gisul kenn ko mën a ubbee. kooku kon atteem mooy day tànn genn wet rek jublu fa julli bu ko defee rek yaana wàcc bu tànnee genn wet rek jàpp ne fii mooy xibla mu julli dim noonu daal yaanam daal di wàcc jar muy baamu muy baamu julli yooyee li mu wax nag ab àll nag fii falaatin ci sart mooy fu mën a nekk rek te xamul fi xibla féete atte yooyu mooy aju ci kawam ndax man ngaa nekk dëkk boo xam ne xëy na ay julli bariwuñ fa te gisoo kenn yi dal mën la faa daal ndax ñooñu duñu teewoo wàllu xibla ba ay mexalaat fa am yooyu mën naa am kenn ku jàng ba am xam xibla dafa nekk kon ni mu ko tënkee ci fii falaati na ba àll xëy na daa jàpp ne fi lay mën a gën a amee waaye itam teewul mën naa am bu amoon ci feneen fi lu àll tam at yi mooy aju ci moom rek moom daal bu fekkee mujtahid la xam na fi xibla ji jublu mën naa gëstu ba xam ko day gëstul boppam ba xam fi xibla ji nekk fekkee aggu foofu ci xam-xam nag la ko war mooy mu seet ku xam xibla mu roy ci moom wala mu gëstu ba gis fu jàkka nekk mu xool fa fa mihraab ba jublu mu jublu foofa bu demee ba yooyu mënta am te mu mel ni pexe rek mu tànn genn wet rek jublu fa julli bu jullee ba noppi mu dem ba yàgg mu xam ne fa mu jubloon di xibla tam julli ga moom wàcc na ko wallaahu muwaffiq as-sawaab
mbokk mi moom day laaj mu ne lan mooy àtte jigéen joo xam ne mos naa am boroom kër ba noppi njaalo ba dara toppee ko ci ak bu yàlla dogalee mu am doom doom ji luy àtteem
waa sëriñ Cheikh de kooku nga xam ne daa amoon boroom kër ba séq ak boroom kër ba yàlla dogal mu def jëf jooju moom lañ tuddee mu xasina muxsina mooy dafa sangewu jigéen ak góor nag comme ci ma doon ba xasee góor it ba amee soxna ba séq ak soxna sa day day sangewu dootu saña bu defatee mooy googu am na àtte bi aju ci moom boo xam ne bu ku ki sangewoogul kooku sangewu nag moom bu xasee sangewu rek bu defatee mooy yàlla googu li sariya santaane bu fekkee sàtt yi daje na sàtt yi mat na sëkk li sariya santaane mooy dañ koy rajmu mooy dañ koy door ay xeer ba mu faatu xam nga ki sange sangewoogul nag moom bu defee jëf jooju te àtte yi daje ci moom at sëkk lay àtte mooy ñu dul ko téeméer yar ci nga xam ne am na am na mas na am boroom kër nag yàlla doog lii gaar ko wala mu mos a am soxna te lii gaar ko la ca sariya àtte mooy bu fekkee réew la moo xam dañuy doxal sariya te ndax àtte yooyu daw la moo ko mën a doxal ab état maanaam ay maxkama moo ko mën a àtte waaye ay ay ay nit rek mën na suñ ñu jël jékki-jékki lay kenn ci àtte boobu moo tax duñ ko duñ ko faral def def ci jëfi réew yu bare bari ndax yu bare bari atte fay dox daa nekkut atte yoo xam ne ahkaam sharia sharia ahkaam sharia doxu fa waaye ahkaam xaanul wada yi ma fay dox al xaanul wada yi daa am atte boppam yoo xam ne wóote naag li sharia tërali waaye li sharia tërali daal mooy fekkee réew la moo xam ne dañu atte woo ci sharia te lu mel ni xew fa ka kam dal ci kawam bu ñëwee saxal ne man maa ko def kon sañ na koo def atte bi ci kawam bu fekkee saxalu ko tam dañu am ay firnde firnde yi nag yombut firnde yu jafe-jafe la yoo xam ne ko jàng téere yi dañuy jàpp ne sax mënut a xaw a am waaye daal bu ñu nee ba firnde yi daje moom dañ koy daal di dañuy def àtte bi ci kaw mooy xadd boobu lañ koy def xaddu rañ mi. lim ko tënk ci topp dara toppe ko ca moom du ci sart mooy mu mu dara topp nag ñàkk topp mooy moom bu ko defoon benn yoon donc it dara topp ko ca te àtte bi mu àtte bu ko defoon fukki yoon wala téeméer yoon itam yàlla ko yëguñ ko woon wala nangoo ko reconnaître tam benn àtte bi rek mooy dox ci kawam. bu ci amoon ay doom ak moo xam benn wala ñaar lu ñu bari bari tam benn àtte bi dox ci kawam rek mooy moo tax tënk gi mu ko tënk ci dara topp ko ci moom du ci sart dara mën na ko caa topp wala mën na ko caa bari topp waaye àtte bi daal mooy loolu. mu des nag doom ji ci fekkee dara ko caa topp doom ji ci juddoo doom jooju bu dee ci sariya àtte bokk na ci àtte yi dal ci kawam mooy du donn kañ koy asaral kañ ci wàllu baay loolu boo demee ci bidaayatu mujtahid wax na ne mboolem fuqaha yi dëppoo nañ ci ne. awlaad zina la yulxaquuna abaahu bi abaihim doom yu mel ne dañoo juddoo ci dul ab sëy ci anam gu mel nii kenn du leen bàyyale kañ ne kañ jàpp ne mooy seen baay moo tax duñu mën a doon génn góor ci wàllu wet googu xëy na dañu mën a doon seen ndey waaye duñu mën a doon seen wetu baay duñu ci mën a doon kenn suñu seex na daa mel ne masala boobu ñu ngi koy coow ci réew mi waaye daal liñ jàng ci réew mi ñëpp daal xam ko mooy waladu zina moom laa yarisu abaahu loolu daal moo sax ci téere bi wér-wér téere fekk boo dem ci Maliki itam loolu la saxal kon daal ñu tënk ci li ñu sëriñ boo xool nañ nañ ci tënk muy tënk ci fekkul Maliki bu ñu ko defee rek noppal suñu bopp waaye bu ñu déglu yeneen fatawaa yi nga xam ne xëy na ko yox am na fayeen fu ñu sukkandiku boo xam ne bokkut fi ñu sëriñ bi santoon ñu moytu lu mel noonu baax a baax wallaahu muwaffiq lis-sawaab
jërëjëf sëriñ Cheikh mbokk mi day laaj mu ne ban bis lañu taamu ngir ziyaari je ay armeel ak ku ziyaari je ay armeel lan lay ñaanal ña fa tëdd
waaw Serigne Cheikh de siyaare wala nu mu leen di ñaanale woon
waaw siyaare amel de Serigne Cheikh daa bokk ci liñ sopp dañ ko sopp rek saxam na ci nag yonent bi nag digle na ko ci ay hadis waxoon na ne kuntu na xaytukum an ziyaaratil xubur fa zuuruha am nay jamono newoon naa leen bu leen siyaareete ay bàmmeel waaye léegi sant naa leen ko comment def nañ ko def amru bi foofu nag amru du amru ijaab waaye amul nabbin la amul léeg-léeg mu ñëw siixatu amul bi zuuru waa ji du càggeen daa war am na sax xaa yu dem ba ne daa war moom ci dund ki ci dundam faaw dana ma sa saare am benn yoon bu ko defut ku mel ne kenn ci fuqaa yu zahiri wax nañ lu mel noonu waaye fuqaawul jumhur bi li ñu wax mooy dañ koo sopp bis yi ñu war a siyaare ay armeel tam tënkuñu ko ci benn bis boo xam ne mënta ñàkk wala ñu ne ba bis sànq dañ koy sibale bis yëpp mën sa ko cee def tolloo naag wax nañ nag bisu àjjuma moo moo gën a moom lañ gën a taamu ci siyaare ay ay ay barab Serigne Bakke bu su bind na ci benn téere boo xam ne nii wax na ci ne bis yi ñu gën a taamu ci siyaare yi ay armeel mooy ngoon ko alxamis jàpp ba ci ajjuma ba ci suba gaaw diggante boobu bokk na ci bis yi ñu gën a taamu ci booy siyaare ay barab ab barab wala ay barab nga taa nga tànn waxtu woowu am nañ sax ñu ci boole bis bu altina guddi ga ak bis ak bëccëg ba kon jëmmi siyaare gi moom bu fekkee da ngay gudd bis daal bis yooyu bokk na ci li onomaa wax teewul nag bis bu la neex man gaaw siyaare ay bàmmeel ndax daanaka li ci ëpp solo mooy ñaanal ñu fa tëdd ak fàttaliku ci ndax yéen bi ma waxee addis bi dañ leen li tax ma digg leen ko ngeen man fàttaliku seen tëraay boobu ba leen bàyyi xel ne yéen da ngeen da ngeen ma si fekk si loolu mooy mooy xekma bi dëgg-dëgg ci di leen siyaare ji li tax maanaam dàgg sa xol nga gën a delloo sa xol ci yàlla te xam ne ñoom fañ tëdd noonee bis ngi ñëw faaw nga fekk si leen fa nga waajal sa bopp nag bala nga leen fekk si nga jiital loo mën ci lu baax amaa ñaan yi ne di ñaanal tam du ñaan yuy tënk fenn yoo xam ne dañ naan yii rek mënut a ñàkk yii lay doon xam naa daal borom xam-xam yi fi jaar yu bari am nañ yuñ ci def ay téere Serigne Touba radiyallahu ta'ala anhu am na lu mu ci indi ci téere bi mu tudd mañ maa nooree ni fi wa fii fa waa di daaree ni am na ci buntu boo xam ne mi ngi ko jagleel nan la ñuy siyaare ay bàmmeel wax na ne booy nan la siyaare ay bàmmeel boo ñëwee ci ci ka ngay siyaare da ngay ñëw ba ci kanamam nga ñëw ba ci wetu ay tànkam nga taxaw foofu daal di wax ñaan bii di bëgg a ñëw xaw naa gudd waaye man say jaar rek ndax ku bëgg gëstu dem téere ba gëstu ko fa mooy assalaamu aleykum diyaara xawmin mu'miniin wa inna insha allahu bikum laaxiquun yarxamu llahu almustaqdimiina minkum walmustaaxiriina minna antum lana faratun wa naxnu lakum tabaun an nasallahu waxsatakum wa amana rawatakum wa jacala aljannata micaadan baynana wa baynakum allahuma rabba haadihi alajsaadi albaaliya والعزام النخرة التي خرجت من الدنيا وهي بك مؤمنة أدخل عليها روحا منك وسلاما مني اللهم إنك تعلم عددهم ورحمتك أوسع منهم فاغفر لنا ولهم اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم sëriñ bi nee na ñaan googu bokk na ñaan yi ñaan yi ñaaral ay ku nekk ci ku siyaare bàmmeel nga koy jàng dem ci ka ngay siyaare nga taxaw ci kanamam dem ci ay tànkam jàng ñaan googu le boo noppee nga teg ci fukki lixlaas ak benn ak fukki suratul kawsar inna a'tainaka al-kawsar fukki yoon ak benn ak benn ayatul kursi loolu daal sëriñ bi sant nañu ko ci téereem boobu mu tudde man maxoon noo rëy ni fii fawaid daar yi ni ne kuy siyaare ay bàmmeel mën ngaa jàng ñaan boobu wallahul muwaffiq lis-sawab
kii moom day laaj mu ne lan mooy àtteeb tuurum ndoxum gone
waa sëriñ siyaare li gën a lëng ci mashab bi mooy day sobe am gaanu waaye moom moo xam ci mag la jóge wala ci gone lépp comme ci ma doon rek sobe lañ ko jàppe ci ngir mi teewul nag leen ci borom xam-xam yi wax nañ ne ngaanu waayam gone gu góor dañ ko jéggale feeg tàmbalee gu lekk fekkee day nàmp dong nga xam ne sa ma lekkagul dara dara foofu am ngaanu waayam dañ la jéggal ci nga di ko fóot nga di ko fóot ndox mbare man ngaa jël sa loxo duy ko ndox ba mu fees nga wis ko fa ngaan waaye ma toll mu wàcc la ci li ñuy tegtaloo nag mooy addis boo xam ne nii ummu xaysin moo ko moo ko soloo ummu xaysin radiyallahu anha daa wax ne mas namaa ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam andi sama sama benn doom yonent bi ko amoon yërmande la ci gone la boo ko indilee gone dafa daal di fab ci saasi yonent bi daal fa jël gone gi teg ko ci teg ko ci kawam yàlla dogal gone gi tuur ndox ci kawam yonent bi saa sallam daal di woo nit ne ko andil ma ndox bi mu ko andilee ndox mu wis fii gone gi tuur ndox noonu daal di raxasu ko maanaam fóotu ko daal di ko wis rek borom xam-xam yi nga xam ne nag wax nañ ne tuur ndoxam gone gu góor lañ ko tënk foofu lañ sukkandiku mu mel ne nag daal bu dee ci masat bi mu dañ ko ni ma ko waxoon jëlbeen gi sobe la kon xëy na daal bu buñ bëggee boole ñaari wax yi mën nañu jàpp ne jigéen ñi nga xam day nàmpal toll ci nàmpal ay doomam doomam wala ay doomam ci lekk guñ dara ci ñam def mën na su ko dafa ruxsa ci bu doom ji tuuree ndox ci ay yéreem mu wis ko ndax bu dee waxtu wu nekk mu bëgg a fóot yéreem may day day xaw a diis ci moom te lislaam moom ñaare lu diis rek almasaqa tajlibu taysiir bu coono ñëwee rek da koy daal di yëkkati indil ak jàppandal kon day mel ne bu ñu bëggee méngale ñaari wax yi mooy ñi nga xam dañu jàpp ne sobe la lépp am ñu wax ne du sobe fekk gone gi lekk gutu ñam buñ bëggee boole jam bay na xawla yi ni mooy boole ñaari wax yi dañuy jàpp ne kon xëy na ma ne su ko defal ruxsa ci kuy nàmpal doomam te doom ji tàmm déggul lekk aw ñam kon mën nay def jëfandikoo àtte bu ba keroog doom ji tàmm lekk ñam boobaa nag moom faaw fu mu pour ndox ci ay yéreem rek bu ci bëggee julli day raxas barab boobee ci ndox moo xam ne sàtte yi da cay daje. wallaahu muwaffiq bis-sawaab.
kii moom day laaj mu ne ndax sujjóotu jàng alquran dagan nañu def ko ginnaaw bu jant bi fenkee ak ginnaaw julli takkusaan ba jant bi di sow.
waaw sëriñ Seex bu fekkee jant fenk la la jubla wax moom xëy na mën naa am da cee xaw a joom ci jant fenkul mën naa am bëggoon wax waaye ni bind laaj bi mooy ba'da shuruqi shams mooy bu jant fenkee loolu moom naafile yëpp dee dagan bu jant xasee fenk rek ba génn lu tolloog ab xeej naafile yëpp dagan na. te sujootu sujootu tilaaw ci la bokk te daal dagan xëy na kay li mu war a laaj mooy bu fekkee li xawal xawalan tuuti mooy bu jullee suba ba noppi te jant fekk gut diggante boobu sañu subee naafila waaye sañu defee def sujootu tilaawa boo jullee suba ba noppi te jant fenk gut ngay jàng alxuraan ba ak si ci ab sujoot may nañ la nga sujoot foofu fekk bi moom ba di bëgg a set nga xam ne asmaa ngi bëgg set nga xam ne koo dajee xàmmee ko la suuf si tàmbalee leer nañ ni boobaaw dañ koy tere nga bàyyi ko ba ba set ba jant fenk ba génn nga door sujjóot boo demee ci xalil daa wax na bu fekkee da ngaa si barab boo war a sujjóote te waxtu woo sa ñëw ca sujjóot wax na ñaari anam yoo ci sañ def mooy nga bàyyi laay ji yëpp jël laay ja jàll ji ci kanamam xam sujjóot bi doo ko jàngeew wala baat ba sujjóot ba nekk nga bàyyi ko bañ ko tudd ñaar yi wax na wala daal boo nekkee ci waxtu woo xam ne daa dëgg nga sujjóot ci te ngay jàngal xaan baax si nga war a sujjóote noonu ngay def waneen waxtu bi mooy bu ñu sëlmalee takkusaan moom it boo xasee julli takkusaan ba sëlmal rek sañetoo naafila ba fii jant suul ba nga julli timis bu noppi boo sëlmalee timis nga door a naafila boo jàngal xaan tam moom may nañ la nag sujjóotu tilaawa boo sëlmalee takkusaan nga sujjóot ko ba fii li moom ba jant bi bëgg a soob bu ñu demee ba jant bi bëgg a soob foofu la foofu la ñuy teree ko fa sujjóot sujjóotu tilaawa waaye feegi ak buñ ci waxtu woowu rek day mel ne waxtu wi ñu toll ni xëy na du ko sori lool mooy jant bi dem bay tàmbali di sonoonu di di mel ne lu xong foofu bu ci accès booy jàngal xaan ba agsi fu ñu war a sujjóot tam doo soñe sujjóot ngay bàyyi sujjóot ba benn nga jël aay bi ni ma ko waxee woon léegi wala nga jël baat bi sujjóot bi nekk ci jàll boo di le timis nag bay jàngaat feneen foo xam ne ab sujjóot dafaa nekk nga doon sujjóot waaye sujjóot bi loo ko fay moom sujjóot boobu nga xam ne dañ ko bàyyi noonu loo ko fay bu ñuy fay wallahu muwaffiq lis-sawab jërëjëf sëriñ bi kii moom day laaj mu ne listixaara mooy lan ak nan lañ koy defee.
melokaanam listixaar de sëriñ Seex mooy ab jullit bu demee ba bëgg a def mbir moo xam ne ni nekkul lu war ci moom sañ na koo def tam muy lu mu baax lu dagan ci lay defee listixaar mooy ñaan suñu borom wan ko yoon wi gën a jub yoon wi gën ci moom wan mu teg ko ci. moom nag sëriñ bi indi na ko ci yenn téereem yi yonent am na ci addis sax yoo xam ne wax nañ ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam daana ko jàngal saxaaba yi ni mu leen di jàngale aw saar ci alquran kaana yuallimuna al istixaara kama yuallimuna as-suurata min alquran addis la boo xam ne bu wér la imam Buxaari moo génne jële ko Jaabir ibn Abdullah mu wax ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam daa leen jàngal ne ñi listixaare ni mu leen di jàngale aw saar ci alquran nga xam ne fonk fonkoon tax na mu leen ko aan jàngal nam lañ ko jàngale nag mooy daa waxoon ne bu kenn amee yitte ci yéen na julli ñaar rakkaa yoo xam naafil lay doon waxtu boobu naafil bu dagan rek mën na ko caa julli bu noppee mu jàng ñaan gii nga xam ne moom ko xaw gudd la moom it dañ koy dañ koy junj rek mooy allahumma inni astaxiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika fa innaka taqdir wala aqdiru ba ñaan nga jeex ñaan nga lam tay wax rek bu demee ba ci biir am na ci bar boo xam ne da ngay wax ne suñu borom maa ngi la ñaan mbir mi may bëgg a dugg bu fekkee moo gën ci man nga yombalal ma ko te jàppandalal ma ko demaat ba sàkk nga ne lii may bëgg a dugg bu fekkee gënul ci man nga génn ci sama xel te seetal ma di gën ci man nga defal ma nga defal ma ko loolu daal yonent bi alayhi salaatu wasalaam santoon jullit yi bu njëttigoo mbir ñu def ko Sëriñ Tuubaa radiyallahu ta'ala anhu tak loolu lañu sant ci yenn ci téere yi wax ne bu yittiwoo mbir moo xam ne nekkul lu war ci ñun yéen nekkul lu ñu tere muy lu dagan misaal ci lu mel ne takk soxna wala di bëgg commerce wala ngay bëgg a voyager dem fenn nga def listixaar boobu boo ko defee rek la suñ borom te am ci pëstéef defee ko pëstéef suñ borom daana wan la gën ci yow sa xel day nekk ci la gën ci yow nga def loolee loolu am na téere yu ko sëriñ bi wax téere boobu sax mooy téere bi nga xam ne al ustaaz Abdul Xaadir bu sa sayxu moom la defoon taxqiq ci baax sum bu am solo boobu mu defoon ci min fatawa Cheikh Ahmad Bamba Mbàkke wa ajubatihi wa nawasirihi muy gëstu bu am solo boo xam ne suñ mbokk daara mu moo ko def ci téereeb sëriñ boobu muy ay ay ubbeem ak i laajam ba muy jàng Maroc la ko defoon mu nekk teesam mu di laaj xam ne mool nañ ko saaroo na ci maktabaat yi jazaahullahu xayra
kii day laaj mu ne laaye ji sunu borom wax ne wa in minkum illa waariduha kaana ala rabbika xatman maqdiya mu ne laaye ji lu muy tekki
waaw sëriñ Seex de laaye boobu mooy laaye juróom-ñaar fukk ak benn ci suuratu Maryam maanaam laaye ji nag mooy amul kenn koo xam ne du jaar tiim sa war a jàll moo xam ku baax nga moo xam ak kàccoor nga faw danga ko romb nga romb sawara ci siraat bi ñuy jaar dugg àjjana faaw da nga romb sawara door a jàll baatu wa in minkum illaa waariduha kenn ku ne ci yoon dana ko rot dana ko rot mooy waariduha kenn ku ne daan dana rot sawara dana ci dugg waariduha mufassirun dañ ci wuute am ñu ne mi ngi nekk maanaam da faaw kenn ku ne da nga dugg sawara ba noppi booy génn door a génnaat waaye faaw rek moo doomu aadama bu yàlla bind rek dana jaar sawara mu dugg ci bu dee koo xam ne daan la mucc sawara day sedd ci woon guy bu dee koo xam ne suñu moom da ko nar a mbugal mu yëg tàngoor wa am ñu ne te bokk na ci ñi ko wax Abdullah ibn Mas'ud ak Xataada liñ nëngal mooy maam kenn ku ne da nga da nga ko romb wuróor gi ne romb lañ jublu moom da nga tiim sawara fekkee ku nar a texee day jàll fekkee koo xam ne nag suñu moom da ko nar a mbugal day daan daanu ci biir sawara wala yaasu billah loolu ibnu mas'ud ak xataada ñaar yu siiw tafsir lañ noonu lañ fiiree almuróor gi te day mel ne wax jooju de moo gën a dëgër ndax la ca tegee mooy summa nunajji lazina taqaw boo jaaree foofa suñu borom day musal ñi nga xam dañ ko ragaloon ci àdduna kon mel ne kon day mel ne dañ cee romb dañ koy romb jàll day mel ne daal liggéey sawara day nekk diggante boo xam ne nii fi ñuy àttee jaam yi ak fi ñuy duggee àjjana aw yoon dafay nekk ñu koy tuddee as siraat yoon woowu nu daal tiim sawara wala ayaasu billah nit ñi faaw ñu jaar ci am ñu ne ku fa jaar ba tollu sawara ci yenn ci benn waxi borom xam-xam yi faaw nga nga dugg ci biir bu dee jullit la koo xam day taxe du yëg tàngoor wa day daal di génnaat daal dem àjjana bu dee ko suñu borom dana bëggal mu daal di tàmbali yëg tàngoor wa ak metti wa am ñu ne déedéet dañ ko bu dee ab jullit moom du ci duggante da koy romb yàlla rek man mel na wax jooju nag moo gën a xaw a dëgër ci buñ bu méngalee li si si aay bi wallahu muwaffiq as-sawab
kii moom day laaj mu ne lan mooy atteb jëfandikoo parfum ci ku woor
waaw sëriñ saate parfum jëfandikoo ko ci woor buñ delloo ceer bi sëriñ Suhaybu radiyallahu ta'ala anhu bind mun xalatul ayni da wax nañ koo sib moom ku woor daal li gën mooy nga moytu jëfandikoo ci bëccëg bi nga moytu jëfandikoo parfum rek cologne ba jant so ba nga dog nga dool ko jëfandikoo moom daal loolu la lëngal ne moo moo gën a dëgër ci waxi borom xam-xam yi wallahu al-muwaffiq lis-sawab jërëjëf sëriñ bi kii day laaj mu ne lan mooy atteb koo xam ne day dog ci bëccëgu weeru koor ba noppi di ko fésal ak lan mooy war a góoru jullit bi ci kuy def lu mel noonu
kooku de sëriñ Seex def na loo xam ne jaaduwul ndax ab jullit amul sañ-sañ ci dog ci bëccëgu bëccëgu koor ndare daa am ngànt lu ko daganal mu dog fekk amul ngànt rek amul amul ngànt lu yoon loo xam ne may na ko mu dog wóoru cee dog bokk na ci ngànt yi mooy ne tawat joo xam ne mënu ko booleeg woor wala muy tukki wala jigéen joo xam ne daa gis baax wala mu am doom ñu mel noonu dañuy am na ci ñoo xam daa dañoo war a dog am ci ñoo xam dañ leen daganal la ñu dog bu dogee tam nag war naa wormaal jullit yi nga xam ne dañoo woor ne moo dañoo woor nga xam ne doguñu ñoo woor mu wormaal seen yëg-yëg bañ a feeñal dogg ci seen kanam ndax loolu day mel ne bokk ci ay teggin bokk ci ay teggin nit ñi woor yow nga am ngànt lu la may nga sañ a dog ndax ngay manifesté wu ci seen kanam loolu lu ñaaw loo xam ne jullit boo xam ne ak rek yàllaa ngi ci xolam waru ko mën a def rawatina nag bu fekkee amul ngànt kooku moom dañ laa war a yar nga xam day def loolu te amul ngànt loo xam ne moo ko tax a dog moom du yem ci day fay wis booba boole ko kafaara waaye sax ka nga xam ne moo jiite julli nekk foofa bu amee sañ-sañ mën koo yar da ko war a yar sax am na réew yoo xam ne sax ñoom warmaal lislaam tax na bu weer koor ñëwee dañuy bëccëg gi dañuy tëj restaurant yépp dañuy tere nit ñi jëfandikoo lenn luy nuru kóor ci kal ci mbedd mi bu nekkee ci mbedd mi daal moom nga ñu la nga jëfandikoo lenn luy xeetu lu nga ne da ngaa doog yow boo duggee ci kër nag wala nga nekk ci barab boo xam ne ay nit nekkuñu fa wala nit ñi fa nekk wóoruñu la yow mën ngaa jëfandikoo da nga bëgg a jëfandikoo waaye boo génn ci mbedd mi wala nga nekk ci biir ñoo xam ne dañoo war daal nga wormaal leen dafa bokk ci ak nite sax yaakaar naa bokk ci ak nite sax boo nekk ci biir moroom ñoo xam ne nii ñoom amuñ ngànt bay woor yow yàlla may la ngànt lu nga dog bu ko wane seen kanam nag ndax loola am na ñoo xam ne ndaw ko ndaay boo ko defee seen kanam mën nañoo saalit da nga moytu koo def seen kanam bokkoon ci ay teggin wallaahul muwaffiq lis-sawaab
mbokk mi day laaj mu ne jigéen joo xam ne dafa wosin ndax sañ naa julli sañ naa woor bu fekkee ne dafa set laata muy àgg ci app bi nga xam mooy ñeent fukki fan wala ñaari weer.
waa sëriñ Seex de jigéen bu amee doom moo xam doom ji dund moo xam dund doom di xasee génn rek deret ji génn ci moom moo lañu wax deret gis deret ji gisin deret jooju nag bu génn ci jigéen dañ koy tere mu julli di ko tere mu woor julli gi moom du ko fay waaye koor gi bu demee ba loola jeex te yoori koor a jeex ñaari da koy fay ci yenn bis bu gisee deret yi wasin boobu nag saa yu deret ji dogee rek day daal di war a tàmbali woor ak julli boo demee ci borom laxdar yi sax mu ngi koy wax nag fa in inqata'a damu qablaha wala fi yawmi wilaada ixtasalat wa sallat maanaam bis bu amee doom sax bu fekkee ci la deret ji arrêté kon daa war a commencé daal dem sangu ji te commencé di julli bu dee daje weeru koor mu tàmbaliwaat koor ga loolu nag lu ma dafay xel la ndax léegi daa mel ne médecine avancé na avancement boo xam ne jigéen ñi li ñu yàgg deret yi bëreetul léegi ñu ci bari bu ñu amee doom rek deret yi da daal di arrêté ndax xëy na paj mi léegi moo ñu moo fi àgg ba tax na war nañoo bàyyi xel na xëy na coono bi ñu coono bokkutul loolu coono bi coono coono bi ñu am ci am doom gi taxul ñu tere leen julli wala woor deret yi génn ci ñoom moo taxoon tere leen kon coono bi mu sonn bu mu ko tee julli mën na ko tee woor nag moom ndax bu fekkee coono bi àgg na ci bu wooree mën du koy coono du ko mën a du ko mën a supporter kon mën nay ko mu dog ndax daa mel ne daa tawat waaye dog gi mu dog teggu ko ci deret génn gi ndax deret jeex na deret ji xasee jeex moom doon te bis ba amee doom la ci waxtu wi rek la loolu moom lu ñu am léegi daa war a commencé dem sangu ji di di julli nam julli ji moom du ko ci benn yoon bu ko xasee loolu amee ndax julli daa bari fas anam yu ñu ko mën a defee mën naa dem ba tëdd ji julli sax xëy na koor gi moom lañ koy jéggal ci bu fekkee bu ko defee mu andil ko yeneen coono ndax lañ lañ koy jéggal mooy day mel ne ku tawat te ku tawat ku ne koor da lay wàcc ba keroog ngay wér ni mu ko tënk ci ñeent fukki bis nag xamul julli waaye li ñu wax mooy bu fekkee deret ji daa continuer di génn moom mën naa dem ba am ñaari weer muy juróom-benn fukki fan moom doo gis fenn fi ñu tuddee ñeent fukki bis moo xam na ñeent fukki bis yi fu mu ko jëlee waaye li ñu wax daal mooy may nañ jigéen jooju nga xam daa am doom te deret ji di génn te te dakk mu toog ñaari weer yoo xam ne du ko julli du ko woor ñaari weer jeexee nag te deret ji arrêté wul moom la ñu tuddee moom tuddee damul istixaada boobaa yeneen at lay lay indiwaat yoo xam ne du bokk at yi damul nifaas mooy boobaa moom daam mi daam mi jorngel lañ koy wooyee daam la joo xam ne ak wéra de koy waral da koy faj rek waaye te li war ñëpp war ko ci wàllu jàmm yàlla yooyu wallahul muwaffiq lis-sawab jërëjëf sëriñ bi mbokk mi day laaj mu ne lan mooy atteb julli gi ñu tuddee salaatu tasbih
waaw sëriñ Seex da salaatu tasbih bokk na ci julli yi nga xam ne ni xeeti naafila yi nga xam ne ñu baax ñi fonkoon nañ ko lool daan ko taqoo am na addis yu ñëw yu bari nag hadis bi ci gën a dëgër daal nga xam ne moom jàpp nañ ne moo ci gën a dëgër mooy bi ibnu mubarak andi ibnu mubarak am na hadis bi ci andi boo xam ne daa wax ne dañ koy sopp dañoo bëgg jullit daal jëfandikoo ko ñu ko jëfandikoo bañ ko sàggane hadis bi ibnu maaja génn nañ ko abu daawud génn nañ ko ci jëlee ko ci riwaayatu abdullah ibnu abbas radiyallahu anhuma mu wax ne julli googu nañ koy defee julli la goo xam ne da ngay wax subhaanallahi walhamdulillahi wallahu akbar wala ilaha illallah wallahu akbar am nañu ci bari wala xawla wala quwwata illa billah danga koy wax ci benn rakkaa bu ne lu jege lu mat juróom-ñaar fukki yoon dañ koy séddale ci biir julli gi boo jàngee fatiha ak saar ba noppi def fukk ak juróom rukkoo def fukki yoon siggi def wax loolu fukki yoon sujjóot wax ko fukki yoon diggante jataay sujjóot ak moroom di nga wax ko fukki yoon sujjóotaat waxal ko fukki yoon boo yëkkatee ko sujjóotu ñaari wax ko fukki yoon doo jógaat boo ko boolee lépp da lay dox lu mel noonu lu jege juróom-ñaar fukki yoon ñu wax ne nag yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko moo ko moo ko santaane woon wax ne ku ko man ajjuma ju ne na nga ko def ay bis bu nekk maanaam na nga ko def benn yoon boo ko mënul at mi nag fexe ba def ko ci boo ko mënul lu lu mu néew néew sëb dund nga def ko ci benn yoon kon daal julli la goo xam daal mag ñi fonkoon nañ ko sëriñ bi radiyallahu ta'ala anhu ba na téere bi ko indi di ko santaane kon daal mel na ne julli goo xam ne ku ko mën a def lu baax a baax la ndax donte addis bi am nañu ci wax ay waxi sax naa waaye xam nga borom xam wax nañ ne dagan nañu jëfee addis da'if fi fadaa'il a'mal min baabi tarxib wa tarxib sañ si jëfandikoo addis boo xam ne da'ifun la boo demee ci misaal yi ñu jox ci yooyu dañ ci boole saa tasbih yi waaw tasbih donte addis bi am na fiihi maqaal waakin yujuusu amalu bihi lenno min baabi tarxib bi kon Serigne Cheikh daal julli tasbiya salaatu tasbiya wala salaatu tasaabiya noonu lañ koy defee loolu de mooy atte mooy dañ ko sopp ci ab julli def ko bis bu ay bis bu nekk wala at mu nekk benn yoon wala ci dund mu def ko benn yoon wallaahu muwaffiq bis-sawaab
jërëjëf sëriñ bi laaj yi mel ni ne des na sax waaye waxtu yi moo xaw a jege ñu ngi delluwaat rek di sant sëriñ Cheikh Bousso Hassan ci turu daaira muqaddamatul xidma ci taxawaay bu am solo bi mu taxaw ci leeral laaj yi nga xam ne mbokk yi indi nañ ko mu leeral ko ci anam goo xam ne gu tegee ci xam-xam la te mucc ci ayib ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm di ñaan sunu borom mu barkeel xam-xamam te barkeel ab jëngatoom ci lislaam kon incha allahu suba daayira bi ngi yëgali ne ñu ngi war a waxtaane njuumte yi nga xam ne lenn ci nit ñi dañ koy def ci sëy loolu it mel na ni tomb bu am solo la boo xam ne jullit bu nekk war na ko bàyyi xel kon suba ci 17 heures et demi lañ koy tàmbali ànd ceeg Serigne Mbacke Abdourahmane